police after police. After police after police. C'est aujourd'hui. ah tey la ngeen aje. dem cours amul woon. dem jàngoo leen. kon da ngeen namoon daal. namoon la ah. classe bi waaw. alors ku kontaanul de. kontaan dafa mais maa ngi bëgg man. after please after please after please after please after please after please journaliste déedéet del foo journaliste del foo dimbali ñu foon soyez galant fair play sourire un peu atta atto plus atto plus atto plus atto plus atto plus bàyyi leen sama maam waay bàyyi leen Ablaye maam réew mi sax léegi dafa yaru bàyyi leen ko maal moom bu ñëwee du am jàmm moom bàyyi leen maal waay jàmm moom day jeex non am di daf may kaañ quoi non kaañu ma la yow yow yow yaakaar naa yow place kii nga bëgg jël lu mu tudd Matar Ba ministre des sports non léegi kii moo fa nekk Lat Diop ah place Lat Diop nga bëgg jël non Lat Diop moom baax na borom bi kay non non moom sport bëgg ko moom est-ce que fan nga koy yóbbu sax justice justice waaw ban nga bëgg affaire étrangère affaire étrangère. Ah carrément ah bu ñu wax am de. bu <laughs> ñu wax bëgg-bëggam de. mooy toujours représenter mon pays quand même. Ah, <laughs> monsieur le ministre. on est vraiment bien on est sur la 2STV merci si vous nous joignez à l'instant c'est l'After Plus qui s'installe on est mardi 21 novembre waaw 2023 waaye gis naa ne dañu bindal 2021 xam naa ne gars yi dañu juum quoi xam naa ne añaguñu quoi. ah. <laughs> jàll la. jàll la de. jàll daan na mat 2021. ah xam naa da ci am ay souvenirs yu garaaw. ah 2021 lan moo xewoon sax. Ah, man ah, fàtte naa ko xam. mais y avait Covid dedans. y avait Covid mais nañ jéem a fàttaliku jàll à peu près lan moo ko war a mën a. non 2021 c' était une année sombre ah. y avait les manifestations tout ça. waaw c' était compliqué mois de mars lii lay jëriñ. waaw waaw mois de mars waaw c' est compliqué waaw tic tac on a perdu beaucoup de jeunes aussi. est ce que du woon loolu tamit. yow xamoo kii yoo xam. est ce que du woon loolu. loolu. <laughs> Ah, de. loolu la souvenir kay. kon loolu mais Khadija. oui ce week-end qu'est-ce que t'as fait. Euh, t'as fait fi ma ah attention pourquoi cette attention Habib yaa menacé de. xale bi nekkee. Habib yaa ngi menacé leen damaa gis rek. ñëpp gis. <laughs> Ah, xale yi ñu ne sam ñu ah, qu'est-ce qui se passe. Eh, ñu ngi menacé ah, euh, ah. non parce que. non parce que ni ma ko gisee nii daal. elle est tellement joyeuse. ma ne daal xam naa daal weekend neex na daal. weekend bee weekend bee boo boo tu sais euh, moi d'habitude. bi. <laughs> nañ ma bàyyi ma sëriñ am est-ce que yaa ngi comprendre li mooy def lu ko neex. méditer méditer. lu koy nengi nengal. Ah, ay ay ay waxul loolu médité la wax. médité may la laaj ko ko moom. médité bu indi sa professeur bi xalaat. médité waaw moom am sama bopp daal. di réfléchir boppam daal liberté boppam. am sama liberté def lu ko neex. ah mi lañ war a génne. damay woo ko ci mbedd ba damay xam na sax man damay woo bàjjen. <laughs> bàjjen Sweden damay woo di rek. <laughs> waaw naa glace. kan mooy bàjjen. ah na ma xam. non loolu moom langage ñu waa West Far ñoom xam-xam. langage reconnu da ngeen dul bàyyi kii tontu ci week-end. j'ai passé un bon week-end en tout ah, ah. je suis allée méditer. Mhm. voilà j'ai allée méditer où. je suis allé méditer. un ah, coin prestigieux. encore na nga génn Dakar daal. <laughs> léegi waaw Safia da ko bàyyi mu wax. Safia yaa ngi man j'ai envie de comprendre. mais raxu xoola dorénavant xale yi. waaw fuñ dem rek man dinaa la ko dee. mais loolu laa bëgg kii moom kii moom moom. bu demee du wax fu mu dem moom. Fatima waaw day wax. moom du laal Fatima téléphone bi moo koy jaay day wax. merci beaucoup téléphone bi. moom téléphone bi a def filtre. ah du mës a def xam nga léeg-léeg dugg fen rek nga def filtre ñu bind Dakar Plateau Sénégal. Ah. Ah. moom duy def yooyu. moom lan lay nga xam. ay seetaankatu statut nag ñoo fi nekk. Ah. du wax liggéey bi daal day filmer rek du wax. jàmbur mais na ñuy def ne kat seen la ñuy dugal quoi gars yi xam ban coin lañ na yërëndu ah oui ndekki. mais baax na nag dundal xol la dafa euh, euh. maa ngi ñëw bul yàkkamti. non yow toogal rek. yow bul wax. yow foog ñu ñëw ci yow mais kii ba léegi tontoogul ba léegi. waaw nee na daal dama dem méditer ji mais fan nga dem. fan nga dem. Euh, bon j'ai une euh, une marraine qui habite à Nguirigne. la Nguirigne. sur la petite côte alors euh, je suis allée la voir parce qu'elle devait rentrer en Suisse euh, voilà en début de semaine. voilà on a profité pour. ana lu xew. baax na dundal loo fekkee yow góor la invité wala jigéen. waaye yow lii lan la nii. <laughs> moo ma invité. Ah. yow xam nga ko. Ah. xam nga Muguette Diagne Chasso. waaw eh. moo la invité woon. moom ay eh, tubaab lañ de. voilà j'allais voilà. méditer kon daal da nga demoon noppalu ji daal. oui oui chez elle dem dallu daal. Mm. dafa demoon méditer très bien ça t'a fait du bien ah. oui oui ça m'a fait non gis naa lool parce que mu ma la gis sànq tey eh, ngay ree. waaw tu sais il c'est bon de de déstresser. waaw c'est important voilà de sortir. Euh, on en a besoin. voilà on en a besoin la mauvaise humeur. voilà c'est bien. alors Fatima yow nga ne. ci <laughs> man ngay jafe yow directement ci man ngay ñëw. damay tëb gars yi <laughs> parce que yow bëgg nañu xam. non moom man moom week-end est simple ah. le sport c'est toujours les stades parce que vendredi Sénégal de 2 juillet. samedi Sénégal ki nu mu tudd championnat. waaw waaw championnat. championnat week-end yi stade lay nekk après stade nag maa moom sama <laughs> après mais, sport après, mais après foot, sport moom sama bopp ah oui. mais on a envie de savoir qu'est-ce que tu fais. mais d'habitude les gens qui qui me suivent xam nañu un peu qu'est-ce que j'ai ah. fait. Ah. man benn coin la am quand Philippe Monteiro joue. maa ngi toog moom moom Philippe Monteiro Philippe war hmm. na ko delloo ñu ko. Philippe Monteiro fu mu wéy daal ay ay ay Fonana ay Kabou ah Bamba nañu may loolu Bamba nañu may loolu. ah nañu may loolu irrésistible ma fecc ak moom. waaw waaw waaw kii musuma gis fans bu fidèle nii ci àdduna. dëgg la ah, àdduna vraiment man c'est ah, Philippe. Philippe daal man moom lay depuis depuis lycée depuis lycée tegal leen ma Philippe Montero. vraiment c'est un ami vraiment c'est ami c'est frère. depuis depuis lycée man mooy sama chanteur après kak jàll. mais ba mooy sa morceau. irrésistible. irrésistible. irrésistible. elle est lover nag elle est sentiment. on dit que les les femmes sportives là dañu. carré tëng-tëng mais d'habitude c'est des femmes très douces. waaw très douces demandez aux gars qui côtoient un peu les femmes sportives. c'est des ah. femmes mais ñu laaj ko kan kan mooy courtois. Euh, ndeysa comme man comme <laughs> ah, man mii. mais dis-toi que c'est un sportif. mais tant chéri dis-toi rek c'est un sportif. tant chéri footballeur ma bàyyi ngir maa ngi koy laaj bi yëpp fa laa bëggoon dem. waaw waaw mais bëggu woon brutal. dañu fi am ay yoon. mais pourquoi pourquoi a. Doudou. bien sûr. oh. Habib Habib lève-toi. ay doon ko takk waaw maa ko takk waaw. may leen mili may leen mili may leen mili protocole bi maa ko war a jóg yéen a gën a jegante. non non non mais maal moo gën a dañ laa takk takk moom fii jege na fii jege na parti bi foofu baax na yem leen foofu ma am na déglu ma dañuy waxtaan lu leer. dañu la seetaan en direct bu dul benn problème. ah lay ah, seetaan yow. lay seetaan yow. ah dëgg la waay. Yalla bu mu diye. Eh, Sophia soo jël maal maal. bravo bravo. waaw. Ouais. D'habitude, on tout le temps des journalistes qui sont, on doit être carré, mais ouais. moi je suis une sportive. Ouais. Très free, quoi. Très free. Très free. tout le temps, sur, le plateau, même euh, sur, ce que je fais, sur le terrain. Open mind, parce qu'on est des jeunes, on est dans mm. un... Euh, mm, mm, on peut travailler, quand qu'on travaille. Carré. Mais quand on peut, travailler relax, même si, tu vois un peu par rapport à ce que j'ai apporté durant la carte, c'est ça. free quand you. koo ah. wax ak moom open mind. ah mais Fatima vu que yow da nga nekk ci milieu sportif euh, que des garçons. partout waaye xale góor yi est-ce que duñ lay attaquer souvent. mais nag sant yàlla sutura yàlla moom weesuwut nga juddu rek. Ah. alhamdulilah. waaw macha allah macha allah <laughs> mais nag mais mais nag loolu xolal ah. ci doxin ah. ci doxin ba xam nga jigéen moom bu la yabee ci doxin ba la ak ni ngay ah, jàkkaarloo dëgg la ah maa ngi sant yàlla tele laa toog di wax de mais je marche la tête je marche la sens interdit dans ce milieu loolu moo ëpp solo tout le temps les gens dañuy gis facilement elle sexy très mm. difficile parce que en fait mm. l'entourage c'est des boy am xaalis donc c'est très facile euh, ñu ñu man le filles qui, qui, qui m'approchent pour mm -hmm. me mhm. demander par comment je gère un peu mhm. le milieu. Mhm. Je dis dans ce milieu, si je dois sortir avec un mec, je vais sortir avec ce gars. Ah ah mais une chose est sûre, j'ai marché toujours la tête haute. Ah du ma am interdit dans ce milieu. parce que je suis célibataire, aw ma benn compte may rendre. mais am na lenn loo xam ne xam naa ko je suis dans cette équipe nationale. bientôt quatre ans cinq mhm. du ma romb bañ ne xale bu bi ak a ñàkk fayda gis naa ko fi. c'est bien après reste. macha allah le reste amul amul amul solo quoi. c'est important le reste amul solo le reste amul solo. chaque jour dañ la wax ne da nga sexy da nga def nii mais yàlla nag mooy bind doomu aadama. bi laay dëgg la bu la bindee mais damay dégg ñu ne jigéen ñi en fait bu leen yàlla dimbalee ñu ñu ñu. yaa ngi wax ñu rafet ñu am ay. yaa ngi wax yàlla leen daal ñu am. patrimoine mais rek wax ñu am patrimoine waaw dégg naa loolu dañ ko war a jëlee seen seen bàjjen mais raxu waaw kiiwuma nag ma kenn mais nga juddu yàlla suturaal la man loolu waxuma sax mais yàlla da lay suturaal parce que am na ñoo xamante ne bu ñu sañoon mel ni yow loolu suturaal la chirurgie woo ko yaa ngi entraîné naturel ngay entraîné matin soir j'assume mon corps j'assume mm. quand les gens disent j'assume le cœur c'est l'amour le cœur c'est mm. l'amour assume ça tout suite tout suite là assume la ñu commencé non mais c'est important parce et puis Sophia ma xamoon ni nga mën a fecc vraiment. man foogoon naa ne yow mbalax rek nga mën. taaxuraan rek laay def. <laughs> yéen a may def Sofia. Fatima taaxuraan. ay <laughs> magnifique waa léegi yow sa weekend laay ku soobu lu rëy gëj kër. waaw lii dee ma dal. waaw toogoo. tooguma. wallaahi. bilaay wallaay. maa ngi daw rek maa ngi daw rek. waaw ba weekend bi da koy daw. waaw weekend bi moom même bu dul weekend sax jour ordinaire yi déjà maa ngi jóge rendez-vous. nii maa ngi ñëw directement metti nag. Mhm. waaw maa ngi nuyu DG HTM monsieur euh, El Hadj Malick Gaye. bu baax bu baax la. Ah. nu mu tudd taxaw leen ko El Hadj taxaw leen maire mhm. waaye nag foog mooy ànd ak yow. may réew mi daa def nag foog ma koy def. man de laa war a gërëm man. raaraw laa war a gërëm man man ah. ah non rox yow moom ñun baa ñu topp sa ginnaaw yow. Ah. yow rox yow bàyyi rek ñu topp sa ah. ginnaaw ah waaw ah. loolu la. waaw nee na nga yóbbu ko pare bi mais maire ñandaan boobu. ça fait quatre ans mu ma dig rendez-vous ba léegi mu. su baa neexee. foofu sama kër la moom lu wax da koy bu nekkee ndaw moom ku baax comme yaay papa comme yaay papa manager euh, biñ ko dénkee projet yi ba tey naaj. parce que carrément c'est une sœur am na ñoo xam ne au delà du du travail c'est des mm-hmm. personnes yoo xam ne tu les côtoies. Mm-hmm. après le boulot comme Habib comme mm-hmm. Safia je peux dire beaucoup de personnes. mais ñoo xam ne da am benn proximité. Safia par exemple elle a innové ñëw na tey jii am jàmbaar def soo events yaakaar naa képp ku a donc loolu la après nag ma wàcc dem gis monsieur Guèye nag tubaarkàlla. mooy alaaji waaw eh, ah, moom sama eh. waa sama tigre noir. mu ngi fi mu ngi Dakar. waa fan yi ñëw na vacances ah, daal di ma bégal ma koy bégal. ndeysaan. rasulillahi. yow kon yow eh, ma maa ngi comprendre lu tax semaine bi passée nga so yére traditionnel kii ko nii. dama doon nappe. nga doon nappe boobu dama doon nappe rek di jéem a kii noonu. Mm. mais gisoo ni ma leeree nii Fall laal noir fumé nii di la napp yow wala. jàllal <laughs> <laughs> nuyu keneen ndax. <laughs> Eh. Eh. foofu du arrêt. monsieur eh. am jom de. waaw monsieur Guèye. dëgg la dañoo am jom de. ba am yow yow sa a ñàkk jigéen ñi rek. Ah. taaju boon dëgg ma ni ma léegi <laughs> moo tax bu ñu ma bàyyee après jour de semaine damay naga naga <laughs> lii yëpp a dal. mais am na lu tax nelaw lu tax doy nelaw. parce que duñ ma wàcc. <laughs> alors si vous nous rejoignez on est sur la 2STV l'After Plus. After People Plus. Buzz bëgg naa ñu déggoon ñu suñu jingle bu dee am nañu jingle People Buzz comme ça on va parler l'actualité de ce week-end xam ngeen ne Paris amoon na xew-xew. di suñu rak di euh, artiste africain malien di Sidiki Diabaté. Mm-hmm. doon def son Bercy ah il y avait euh, beaucoup de monde. il a mm-hmm. convié pas mal mm-hmm. d' artistes africains. que ce soit le Sénégal le Mali la Guinée le Congo plein d' artistes ah. alors euh, dégg nañu waxtaan yu fa jot a xew un peu quelques polémiques avec les artistes sénégalais. donc euh, bu ñu mënoon am jingle people buzz ce serait bien ah. ah after plus. waaw after plus ah. am na am nañu jingle ñu. people buzz ah. people buzz ñu am jingle. am jingle mu ñëwaat ah. très bien alors. Habib yow laa njëkk a laaj loolu <clears throat> parce que yow yaa ngi euh, dans la musique en mhm. tant qu'animateur aussi et puis tu fais des belles émissions sur la 2S mhm. tous les lundis heures l'émission s'intitule Made in Africa Made Africa très bien di wax na ni émission boobu yow yaa pousse xajal ma heure boobu dëgg la ah. doon def heure boobu vrai et puis nag yaa ngi koy def muy nice ah, ah. vraiment yaa ngi koy def muy nice loolu alors ça montre la famille qui est là lan la ñu mën a wax ci week-end bi gis nañu gars yi naan kii mooy parent d'honneur ki naan yu invité kese nga on a vu aussi nos influenceurs derrière waaw qui voilà qui parle de ça affaire bi nekk lu xaw bizarre ci ñu nii mu amee ci diggante Wally Seck ak euh, Sidi Diop ni ñu gisee scène bi ak lépp ni mu demee ça montre que ci biir conducteur bi Wally la ñu prévoiroon mu def une prestation scénique di Sidiki Diabaté parce que c'était préparé mm-hmm. parce que xool nañ parcours bi yëpp suñu amoon vidéo di nga gis ne le manager de Wally am euh, de Sidiki xale bu jigéen bi. am na benn mhm. waaw mhm. am na benn instant sax. mu ngi taxaw di xëcc Sidi Diop. Mhm. elle était non mais dépêche-toi. tu vois donc loolu moom mooy mais je pense que frustration waru ci am kenn waru ci mer. def leen li mu def. loolu moo ëpp solo. xam nga loolu moo ëpp solo si euh, Wally Seck def na Bercy feesal na ko. si euh, Sidi Diop def ko feesalu ko wala boog Sidi Diop def na ko feesal na ko Wally Seck def ko feesalu ko loolu moo am solo mais munoo ñëw ci événement jàmbur. Mm. nga accaparé ko. Mm-hmm. Mm-hmm. bëgg ne waaye diw moom moo ñoom ñoo ci bokk yem. tu vois man je pense que ñoom ñoo ci bokk yem mais nag techniquement boo seetaanee concert bi. <laughs> soxlawul ñu lay wax ne kii mooy kii moo am honneur wala kii moo amul honneur techniquement. boo ko ah. seetaanee ah. ak ku xam spectacle ak ku xam conducteur spectacle. cest techniquement. <clears throat> techniquement mm. euh, damaa gis ci régie bi ñu ngi xëcc Sidi pour mu ñëw taxaw xaar ñu signalé. Euh, waa ñu def bëf. waaw mu ñëw ñu signalé. Sidiki Diabaté ne mu ngi fi. Mhm. Sidiki Diabaté door ko woo. Mhm. boo gisee bi mu koy woo sax répété na lu yàgg artiste invité artiste invité mu door a ñëw ci tuuru Sidi Diop. alors que Wally techniquement c'était prévu que qu'il sort ci suufu scène bi mu génn. Mhm. comme ni Sidiki yéegee jóge ci kaw moom mu génnee ci suufu seen bi donc. lu ñu répété la. automatiquement da nga koy da koy da nga koy comprendre. mais problème amu ci wax dëgg yàlla. man gisuma fa problème gisuma fa problème tandis que euh, euh, kii nga xamante ne moom mooy Sidiki Diabaté yàgg na collaborer ak Wally Seck ay xarit lañu ñu invité si Sidi Diop. d'ailleurs aussi il faut se rappeler que ne Wally Seck son premier duo sur le plan international. C'était avec c'était avec Sidiki Diabaté c'était avec Sidiki Diabaté alhamdulilah bien sûr. voilà léegi nag il mm. ñooy. xaw a indi amalgame si yenn affaire yu bëri. parce que ku nekk dafa am influenceur am. Mhm. man su ma nekkoon kii wu Sidi euh, Sidi Diop bu wàccee jour ba damay wax ah Sidi Diop man maa ngi koy seetaan am na benn instant woyatul sax pour public bi mu ngi woyal Boucher. Mhm. Boucher ci Boucher la ñëw ci caméra Boucher la ñëw jàkkaarloo moom di ko woyal. Mhm. n'est-ce pas am na ñu doon ci public bi ne pour mu pour mu leen di xool et tout. donc pense que gars ñu war a organiser wu waat rek ñun lu ñu ëppal solo mooy Wally Seck na préparer son prep pour Bercy mu def ko. Sidi Diop bu fekkee dafa war a jaar zine mu jaar fa ndax tey comme ni anglophone yi amee O2 Arena bu Angleterre ñoom vraiment nu ñu fay dem di ko feesalee ñun itam am nañu Bercy foofu la gars yi di dem di feesal donc ku nekk si ñoom na préparé bosam def ko am ngeen xaalis am ngeen tur def leen ko comme ni ko Sidiki Diabaté alors Sophie. waaw man je pense que je partage la même avis que Habib te defe naa euh, bu ñu invité Wally Seck invité Sidi Diop il porte le drapeau national du Sénégal. Mhm. foofu déjà la waroon gën a accentuer wu. que ku ci nekk di xëccu si sa côté c'est vrai que c'est le showbiz mais peut-être dafa war a am fu mu yem comme ni mu ko waxee rek euh, am na différence am na différence parce que ñu ngi dégg côté Boucher mi ngi naan yaay parrain yow lañ invité yow yaay yow yaay invité d'honneur bi euh, ñaa xarañ mi ngi naan yow yaay parrain bi yow lañ invité yow la ñu wane sa loge yow la dugal fii nga xam ni coin VIP la d'accord loolu showbiz la mais comme ni Habib wax rek boo yow personne bi nga xam ne yow yaay artiste bi li nga war a gën a miser moom mooy woy wi ngay way pour que public boobu tey mm. Euh, ñu mën a captivant ci li ci li nga xam ne moom mooy sa image ak sa prestation ndax tey fii nii public bi gis nga fa sénégalais gis nga fa malien gis nga fa ivoirien gis nga fa nationalité yu bëri yoo xam ne tey peut-être jour bi lañ lay découvrir mhm. donc c'était le bon moment de faire le show nga mën a capter li nga xam ne moom mooy différentes nationalités yi fa jot am mais pas pour xam nga boo taxawee sur scène yaa ngi xool looy defanteeg yaa ngi xool koy wayak yaa ngi xool ak war nañ dépasser loolu nii liñ ñu rawee xam nañu fu ñu war a defee li ñu fa war a def comprendre nga ñun fi ñu war a yam Sénégal ci li nga xam ne moom la ñu defante nañ ko bàyyi fii donc nekk show bu rafet te xam nga waali yéeg mu way sa yaram daw loolu dafa neex si di Diop way sa yaram daw dafa neex mais aussi nañu moytu Euh, li nga xam ne moom la ñu defante parce que des fois aussi gàcce daf ci topp de. Mhm. Mhm. waaw gàcce daf ci topp ci mel nii moo tax nañ koy rafetal rek. Fatima ngir ëllëg wala yow noo ko gisee. man xam nañ ne nekk du ma côté musique yooyu côté mais man ah, benn message nga def côté musique nga def yaa ngi dégg suñu métro <laughs> mooy ah, kon bu la côté je ne suis de <laughs> da ngaa taxaw fii wax ne da am da am kii chanteur chanteur muy Wally Seck muy muy Philippe Météo waaw muy Philippe Météo. <laughs> waaw d' accord waaw laajee si affaire la waaw waxal leer waaw waxal. <laughs> Euh, man sur ce point là. dama bëgg a joxe benn exemple rek. deux artistes que je suis aussi muy Dadju ak Tay. Mm-hmm. ils sont def nañu benn dio boo xamante ne. loolu rek c' un message fort. fort tey jii mm-hmm. rivalité amul. sens parce que ku ci nekk. gis nga yoon bi nga war a jaar yàlla tracé na ko ba pare. muy Wally muy Sidi c'est des gens yoo xam ne nag damay leen gis à travers la télé tout ça am na ñoo xam ne dañ leen di côtoyer mhm. li may seetaan aussi par rapport ak ce que les gens xëcc fii euh, ñaaxaral loo xëcc fii amul sens mhm. ku ci nekk tamit day bëgg a jaay aujourd'hui tey sa chanteur mhm. mais lu gënoon rafet moo moo mooy aujourd'hui su Wally ñëwee def euh, kaw bi applaudir bu bu Sidi ñëwee def keneen applaudir parce que benn Sénégal la ñuy wax tey gis nga Sidi kii mu tudd Sidi kii mu def mhm. il a représenté l'Afrique mhm. xam lu ñuy xaar xaar tey jii mhm. un Sénégalais def ko euh, wala Wally def ko wala Sidi euh, Sidi Diop def ko c'est simple parce que quand même Sidi Sidi kii wan na leen ne carrément devancé naa leen par rapport ak li mu def nii dama réussir il a regroupé tous les Africains ñëpp ñëwoon foofu tous les deux chanteurs n'ont pas encore réussi ça ils n'ont pas réussi a def euh, léegi lan mooy kii bi défi bi dañu réussir bu Sidi euh, nu mu tudd di ki jabate def. jeex na jeex na loolu rek mooy defante bi mooy defante bi. waaw jox ko parole bi ku jot a jox parole. tey nga dégg gëgg. lii Sidi euh, Sidi ki jabate def Wally Seck ko jëkk def. jërëjëf foofu laa doon ñëw. def na ko ba pare. foofu laa defante ko. ak ak kan non Bercy benn yoon la ko def. Bercy benn yoon la ko def def na ko. def na Bercy réussir ko. def na Bercy réussir ko il a réussi quoi. on parle pas du public mais il a réussi. xam nga réussir aujourd'hui je suis pas en fait man xam nga problème réussir aujourd'hui c'est voir ce monde là. mais il y a eu un monde fou il y a eu un monde fou. nous nous sommes là nous regardons les télé. regardez woon dara dara dara déglu kii feesal na Bercy waaw kon basal na ko Wally Seck ban producteur moo defoon Wally sekk bi. ma Aziza. kii la am na ce que du Moustapha Diop. Moustapha Diop waaw ak kii. producteur kii ko produiroon ki produiroon Bercy bi. xam nga Wally produire ko woon. waaw ki produiroon Bercy bi kan la woon. du Moustapha Moustapha Tafa Dabrèze ak kii Matar Diop sama tey. Matar Diop kii Sidiki moom moo defaral boppam Bercy bi. kii mhm. loolu lay wax mhm. waxuma la promoteur tëgg invité la ah yow pour nga ñëw jouer. déedéet. oui ñoo ko ñoo ko tëggal seen bopp après si lañ dem non côté boobu foog ma leeral leen c'est-à-dire euh, Sidiki il a fait une coprode. oui une coprode oui. Euh, maison de prod bi nekk foofu 360 musique moo ko waroon à la dernière minute il est parti voir. Euh, notre producteur là j'arrive pas dire son nom donc ñoom ñoo tëgg Sidiki Diabaté mm. mais Sidiki Diabaté tous ces artistes qui sont venus sont venus de la part de l'artiste tout ce qui est Bercy il y a un producteur sur place qui a tout fait. jërëjëf jërëjëf donc léegi nag xam nga yéen seen genre yi déglu leen amit seen genre yi. waaw mais léegi léegi dañ la jox parole damay may ma wax. ah mu ne waaw dafa naan du seen ndam du seen ndam parce que yéen a ngi nii di xaaj di xaajamal suuf si. am na moo la benn affaire moo la benn affaire. c'est qu'on va faire nous allons revenir sur le plateau ah. am nañu benn live bu ñu war a def ak Kumba gise ah. moom aussi euh, mu ngi ci mbedd bi nekkoon ñu fa tey wax ma vu qu'elle est dehors n'est-ce pas mhm. euh, Régis si Kumba il est prête je pense que vous faites Merci si vous venez d'arriver donc euh, ñun ak yéen la fii on a aussi d'autres invités qui vont venir nous suivre ici même à la 2S am looy wax. njëkk a feesal Bercy. sénégalais bi jeune sénégalais bi njëkk a feesal Bercy Wally Seck la. waaw loolu kenn waree. mais affaire yi du Wally ak Sidi Diop. c'est pas ça le problème c'est pas Wally. c'est pas mu ngi seetaan. wala boog lii nga dagg ko woote ko man man collaboration internationale yi Wally Seck def. kii la dëgg la dëgg la ma restaurant wu Ndiaga Oro ñu toog ñu jógee foofu dem kër Wally Seck Wally Seck sans frère mhm. collaboration ak Davido war ma xam ne commencé ma mhm. aboutirul mhm. mais dama lay wax li nga xamante ne tey on a tous envie de voir ces artistes sénégalais toll fii mais il n'est pas déglu kenn amul benn artiste africain bu fi jógee nga dem Europe tëgg fa yow kese. Mhm. dama lay wax si. Ah, yow léegi léegi nii ma ma Sidiki Diabaté moo ko tëgg. non déglu ma léegi nii ma ma ko non. si si si si si. non léegi nii c'est une question d'initiative. waaw initiative waaw. da ngay wax euh, commencé indi ay mots exagérés yoo xamante ne ak man ça du jàll. am na am na trois cent. non non déglu rek déglu rek. non déglu nañ ma parole jox ma may wax dama ne teg noppi. waaw ma ma xotteeku. waaw waxal waxal loolu bu ñu la joxaatee parole nga défier ma. waxal voilà dama ne ne Bercy bi. Mhm. Wally mhm. ñu ko ñëkk a si la bokk. Mhm. feesal na ko. invité si moom Wally Seck slogan mooy. képp koo xam ne doomu sénégalais nga. nga xam ne si sénégalais nga dëkk yaa ngi yëngu si showbiz mu jéem leen invité. ñoom ñu ñëw mais mun na ko yaatal de. te boo xool bu ko tëggaatee bi yoon nii. ah li Sidiki Diabaté def nii plus lay def de moom. à savoir que par zone la. ah lu ji 15000 places. waaw 20000 euh, places yu jëm kaw. dañ koy xaajala rek loolu aussi il faut ñu xam ko. waaw non stade bu kii bi yëpp salle bi yëpp. dañuy occupé ma ne Matar suba teel a tëggoon Bercy bi. waaw ak Waale. Mhm. mu fees dell. waa ah, waaw zose bi est-ce que def nañ zose bi yëpp. danoo puus saisi dañ ko dañ ko arrière moom sës. Ah. zose bi dañ ko dindi. <laughs> yéen <laughs> lu tax ngeen xeeb seen bopp. non xeebuñu si tax man ne réew mi. gis a am ndam. non a am ndam. yi ngay def développer suñu musique. déedéet développer déglu ma musique bi. dañ ciy wax problème yu ci nekk ñu régler ko ñu avancer. comprendre nga man dama lay expliquer benn affaire mooy déglu ma rek ma wax la. ma dama lay expliquer benn affaire. label dama wax ko intellectuel ak ah, wax ko wax ko promoteur yi jàng. label bi raxu di waxu fans ngay waxal man fans la label bi raxu di wax moo collaboré ak Sidiki production exécutive lañ koy defaral. Mm. waxuma la mu ànd ak fii dem foofu noonu lool je t'explique le quoi Sun Shine je crois noonu la tudd. non non c'est la production. salle bi fa gën a mag Wally Seck moo ko tëgg te fees Wally def na salle yu mag yëpp. c'est pas un problème. am di am di c'est pas un problème de Wally loolu lañu wax. Sidi Diop merci merci merci bii nii. fes del. bàyyil. fes del. andi. <laughs> quatre-vingts millions lañ ko jox. bi mu defoon fii. waaw. fes del oto quatre-vingts millions moo daan. ban bersen kon bi mu defoon bersi Dakaram bi non bersi France la ñuy wax. waaw déglu ma rek moom mu ngi si yoon yooyu day ñëw. Ah, day ñëw. chacun a son temps. Hmm? chacun ak son temps day ñëw. tey daal fi mu baax na promoteur ah. promoteur euh, euh, kii bi nu mu tuddee euh, kii waaw lu ma dal. andi ki tëggoon kii ki tëggoon waale Bercy. Matar Diop sama teel guerrier la. Matar Diop ñoom ñu ngi si ay projet yoo xam ne Tafa c'était Tafa. mooy tête bi ay tête bi dama lay wax xamoo. ok dama lay wax da ngay déglu xamoo. waaye sama copain yow lakkale nga torop Matar mooy mooy bi. <laughs> tête de service léegi daal xam nga aussi bu ma fi nekkee. di dégg yenn yi may bàyyi mu jàll. Mhm. rafetul. parce que gars yi dañu naan ma c'est pas normal je t'explique. yow promoteur je t'explique. waaw nga je promoteur. <laughs> Wally Seck ba muy dem Bercy ils étaient trois. Djidiack Moustapha Dia. <laughs> jërëjëf Khadim Dia. akar Khadim bi nekk tey ci Amadou Ba. c'est ça Khadim Dia waaw. kii politique ils étaient ces ñu jël jël Wally yóbbu ko Bercy. maintenant Bercy artiste sénégalais mënu tëggal boppam ba ci Youssou Ndour ci boppam Alliance Prod. Alliance Prod ba muy dal tëgg Bercy ba léegi ñoom lay liggéeyal parce que licence bi ngay am di ko teg foofu. ñoom ñoo ko gérer du rekk xaalis mën nga yor xaalis te mënoo tëgg parce que France dafa am ay normes boo amul licence. doo mën a tëgg yenn mm-hmm. événement yi. d' accord moo tax nag su ma fi toogee mën nañu délire je suis d' accord mais aussi bu ñu naree wax dëgg yoon la man ma rectifier li kii bëgg wax dafa bëgg wax ne Sidiki Diabaté moom moo am bëgg-bëggam am yéene ne dafa bëgg a def Bercy dem gis ay nit France ñooñu ñu waxtaan ñu d' accord ci seen condition ñu tëgg foofu mën nañ jàpp ne. moom Sidiki moo tëgg yëfam. ndax mhm. moom moo am initiative. sens boobu laay waxee tey jii. Zénith yi ngay gis yëpp muy am ñu koy def euh, bitim réew. Euh, les promoteurs qui viennent dëkk fii di dem ñoom amuñu exclusivité boobu wala ñuy wax un producteur exclu. exclu c'est-à-dire dañuy am ñu koy seqal foofu ñoo xam ne ñooy jël seen licence. Mhm. liggéey ak ñoom. loo gis rek foog mu doon ñaar. ñu mën a sotti. sens boobu laa loolu nag la ñuy ñaanal suñu artistes yi. Mhm. Wally Seck il mérite Sidi Diop il mérite. donc ñun bu ñu nekkee ay sénégalais dañu war a boole suñuy doole. image bu rafet bañ di wax lu ñaaw. Mhm. Mm. wax mu rafet. pour suñu musique jëm ci kanam. Hmm. mais bu kii xëccee fii. Hmm. kii xëccee fële coono rek lay doon. Hmm. te coono googu soxlawuñ ko jamono ji. n'est-ce pas Habib lan nga bëggoon wax loo ci bëggoon wax. waaw loolu kese la leeral nga ko. ndax yow dina la déglu man du déglu. man su may wax dafay yuuxu. <laughs> moo tax mënuloon comprendre. la yaakaar naa problème bi problème bu ndaw la problème kii eh, production exécutive la mais nag ah, je pense que ah, tey euh, Sidiki li mu def. waaye attan na a a te mën nañu ko may chaque année. Mhm. man je pense que. Mhm. comme ni Sidiki def il faut collaborer. Mhm. il faut il faut il collaborer ah. avec les bonnes personnes. tu vois il faut collaborer avec les bonnes personnes. c'est un artiste de très haute facture. te li may wax man su may wax pour dëgg c'est parce que damay yéene. artistes sénégalais yi ñuy dem. mais ñoom ñëpp ah. tu vois voilà dama leen Sénégal qui gagne voilà ñuy ñuy def yi te fi mu nekk nii. Mhm. sooy wax nag Sénégal. Mhm. ne defal defal Bercy si waali ngay. dëgg la waaw ñu teg Youssou ngay njëkkee te ñun. ñu ngi ko ciy xaar. ñun sénégalais yi ñu ngi ko ci xaar. non mais c'est prévu pour l'année qui arrive. pour mu ñëw tëgg Bercy. taj fa. Ah Sénégal avancé. absolument mais Rakhou man le constat que j'ai fait par mhm. rapport ak euh, événement Sidiki Diabaté bi nga xam pour man c'est pas du du du du privilège que ñi fa dem en tant que sénégalais di jouer ñëw ne toj naa fa wala tojuma fa wala toj naa fa parce que c'est pas leurs événements. c'est pas leurs événements. le beneen bi ci topp mooy man yàlla dafa def ni je les su suivre naa leen ñoom ñëpp. Mhm. bi nga xam ne dañuy dem Bercy. Mhm. alors Sidiki ñëw na fii dugg na studio Maxu Matar suba teel ba Matar yëkkati xaalis may koy. Mhm. mais avant Matar moom may gan xaalis. Sidi euh, Sidiki Diabaté. waaw kay d'accord léegi mais avant événement bi avant ñuy sax gis Sidiki Diabaté di ñëw ci studio Matar suba teel déjà arrêté woon nañ ni Wally Seck est l'invité de Sidiki Diabaté di Bercy bi. ma affiche bi moom moo ci nekk. Mhm. alors bi ñu demee Bercy suivre naa ci snabu boucher ketchup. Mhm. parce que waale dem na dem na en pleine répétition. ak ki nga mhm. xam ne moo di Sidiki. mais ci beneen bi dama gis Sidiki ñëw wax ak Sidi ci benn moment ne ko j'ai préparé un son pour toi c'est plus rythmé parce que gis naa ne ci loolu nga gën a mën a tegu. donc je peux comprendre c'était pas une chose prévue. d'accord vu que c'est pas une chose prévue Wally mu même ci kaw seen bi da xam ne Wally préparé d'accord mais il faut parfois aussi dire il faut qu'on dise la vérité ñoom ñaar ñëpp dem nañ ci kaw seen bi kii gée na lu baax wala kii gée wu lu baax c'est pas ça mu am importance moment wu Bercy bu fekkee am na ku ci am lu mu ci gagné mhm. Sidi Diop la pourquoi parce que su ma juumul je dirais pas c'est pas la première fois parce que dem na fa ak Youssou Ndour. Mhm. mais ak événement wu nga xam ne c'est benn artiste international comme Sidiki Diabaté invité la nga ñëw def prestation. Mhm. ak scène bi mu toll avec d'autres artistes africains ay Ibawaan ay. Euh, mhm. Diabaté tout ça. nga ñëw jouer loolu ndam la loolu rek ndam la. ah man je dis Sidi ak Wally ils n'ont pas de problème. parce que après gis naa benn snap ba Sidi di tooñ ñaaxare ak Metshop nan ko ana donc où est le problème man je pense que ce sont les snappeurs en fait. les snappeurs ñoom ñoo invité nañu kii. les gens qui sont tout autour et puis gars yi ñu ngi créé artistes yi noonu. Mm-hmm. je vais pas dire du ma ci wax kenn mais ñu ngi créé seen artistes yi wax ndax mu leer. d' accord euh, je parle je je parle en l'occurrence de Sidi Diop. Mm-hmm. ñu ngi koy créé noonu. et Sidi c'est un gars cool. Mhm. ku bëgg waali la waali ku bëgg Sidi la. te ñoom ñaar ñëpp da gis ni koo xar ci xolam da fekk ni kii bëgg na ko mais bu ñu tollee rek ci ma waxoon ne on est des animateurs on parle dañuy wax de la musique il faut qu'on dise la vérité foofu noonu bu ñu fa yéegi ci kaw scène bi. ñoom ñaar ñëpp gagné nañ mais bu ñu am pourcentage Sidi moo war a mën a am dafa war a mën a gagné. Mhm. parce que scène boobu nga ñëw joué ko et entre guillemets est-ce que prévu moom ñu invité ko woon ko. pour man mhm. loolu mooy la chose importante. et ñoom ñaar ñëpp am nañ privilège et loolu moo am importance mais pas ay toj naa fa toj moom parce que du seen événement en fait. Mhm. très bien Khadija. sànq euh, ah, ba tey mi ngi sonn. <laughs> surtout mais bon. vous m'excuserez vraiment. parce que ku nekk tamit ak avis am. ku nekk ak opinion am. mais avec tout le travail qu'est en train de réaliser Waly Balago Seck en ce moment. Mm -hmm. je m'abstiens di débattre ak moom di ci teg keneen surtout ci polémique bi je m'abstiens. c'est-à-dire. que du ma jël Waly ak li muy liggéey yépp instant bii nii. man personnellement ma koy débattre ak. beneen beneen da bëgg a wax bokkuñu bokkuñu bokkuñu niveau waaw. bokkuñu niveau problème problème de niveau la. Ah, ko wax waaw. Ah. mais non c'est pas le problème non n'est pas à ce que ñoom. Hmm. ñu gëm ko ou pas. non mais non mais le problème non n'est que man sama. la sama opinion laa wax. waali waali mais moi je parle en tant que ce que j'ai vu. je parle pas en tant que fan mais sama gis-gis man laa waxee. waali tamit gis-gis laa waxee pas place fan. mais li ngay wax ni en fait. Euh, bu ko sénégalais doon c'est que je veux dire. Mhm. moo tax ma ne boo amee xalaat bu mel nii. Mhm. c'est très positif. dëgg Euh, coow moom fépp la. Mhm. Euh, musique moo demee noonu. la football moo demee noonu. gis nga même Youssou Ndour bi def Bercy sax su invité invité laa wax de euh, Viviane. Mhm. Titi gars yi le lendemain. waxu Youssou Ndour duñ ci wax daara. ci Viviane ak Titi la ñu nekk. dëgg la musique moo demee noonu. ñun Sénégalais ñoo noonu. Mhm. donc loolu fii lañ koy fekk fii lañ koy bàyyi yaakaar Angélique Kidjo eh, invité na Youssou Ndour loolu ci benn scène boo xam ne avec d'autres artistes xam ne Youssou moo leen ëpp dayoo et pourtant fa nekk ci kaw scène bi ak ñoom way mais amul polémique et puis Youssou Ndour moom Angélique Kidjo ak yeneen artistes xam ne Youssou moo leen ëpp dayoo ah, il faut savoir aussi que Bercy tour bi dafa rey waaw mais nag tamit dañuy dañuy bàyyi xel benn affaire mhm. si Dicky a été très respectueux par rapport aux invités sénégalais mhm. parce que am na ñu bëri ñu muy invité on a ay Azaya de la Guinée Conakry oui oui dégg naa loolu joué wuñu waaw il a beaucoup waaw il a beaucoup de respect voilà il a beaucoup de respect respect par rapport aux artistes même boo gisee nañu doon wooyee Sidi euh, Sidi Diop il tenait à ce qu'il joue tu mais il a dit même dans une vidéo ce que tu en train de dire là man seetaan naa benn vidéo bu mu nekkee ak euh, ñoom euh, Sidi Diop mm-hmm. mu ne bu nekkul woon genre bu kiiwul woon Mali sénégalais lay bëgg doon parce que dafa bëgg seen lépp. mais xanaa moom buy joué sax ñi koy tëggal sabar c'est des sénégalais. c'est des sénégalais Adama Diagne ak yeneen boy alors ñu ngi en direct sur moom moo nekk foofu ca euh, Ami Collé Sow Ardo xam ngeen ne tey lay def euh, ses quarante ans donc euh, lu am solo la aussi ñu mën a dem fekki ko foofu ku ma gisee am quelques informations ci Awa Collé Sow Ardo alors Kumba si c'est bon on va l'écouter on est dans l'émission After Plus day nekk euh, këru comme euh, euh, non plutôt Collé Sow Ardo pour ses 40 ans je pense que c'est important oui match Sénégal un partout. Ouais. voilà donc tu as eu 0-0 pour le moment. en 0-0 0-0 waay. je suis en même temps je suis voilà c'est important aussi parce que c'est des que notre invité arrive. c'est des informations c'est des de la Coupe du Monde. actuellement c'est zéro de but encaissé pas de but et il y a a aussi euh, du foot là. oui euh, euh, Sénégal Soudan Mauritanie voilà exactement Soudan qui reçoit au Sénégal parce qu'il n'a pas de stade homologué. c'est ça. Très bien, c'est important oui, aussi. Alors, Kumba Guissé, je pense qu'elle est prête. Kumba Guissé, comment vas-tu j'espère que vous m'entendez. maa ngi lay nuyu a baax. on n'a pas de retour euh, équipe euh, After euh, Plus. voilà c'est le live voilà c'est le live comme mu ngi foofu euh, duplex la nekk ak ñun ci émission After Plus donc euh, si elle est prête on peut l'écouter donc euh, lii mooy le live lii mooy After Plus fu Sénégal nekk rek am nañu aussi possibilité dem fekk leen foofu waxtaan ak ñoom ci actualité donc d'habitude Big Taf moo ñu fay nekkal mais là on a Koumba Guissé bonsoir Rakhou maa nuyu bu baax a baax di nuyu euh, sa équipe yëpp vous êtes tous beaux macha allah alors euh, di ñëw nag tey si seen euh, direct bu spécial tey dañu génn Apto Plus tey dama génn indi leen exclusivité ci seen biir émission ñu ngi ci espace Wally Sakhir buñ ko waxee nag suñu xel dafay dem ci la reine du bagne tissé kenn du ko présenté ti mu di Collé Ardo Sow muy nekk ci préparatif ses 40 ans d'anniversaire anniversaire 40 ans yi nga xam ne nekk na ko ci podium bi di def liggéey bu am solo tey jii bu ñu waxee euh, mode bu ñu waxee stylisme euh, mënuñu ko wax te duñ ko lim ndax am na ci liggéey bu am solo boo xam ne euh, daal dina koy def depuis 1983 ba 2023 mi ngi ci podium bi di def liggéey bu am solo di indi ñoo xam ne ñu ngi à l'étranger à l'international tey jii pour wan li nga xam ne moom mooy sunu mode loolu la ñu mëne ci wàllum stylisme ak ñaw alors tey nag bu may préparer 40 ans euh, ça fait longtemps gisuñ ko nag euh, ci euh, podium bi parce que tout simplement avec la crise du Covid-19 c'est normal ñu defoon tuuti pause mais elle revient en force avec un programme alléchant di préparer ses 40 ans mu nar a nekk nag événement boo xamante ne ni li ngeen ko namoon yëpp dina ko dajale ci 40 ans yi fësal leen ko mu fas yéene nekk def innovation bu rëy parce que Collard de Sow ñëpp xam nañ ko ci social alors liggéeyam daf ciy boole social tout le temps ci gën a waxtaan dinañ ci gën a xuus ak moom parce que ren invité d'honneur bi euh, c'est la Côte d'Ivoire ñoom la ñu fas yéenee dalal alors actuellement moom Collé Ardo Sow mi ngi jàkkaarloo taskatu xibaar yi les euh, la presse sénégalaise et la presse internationale pour présenter leen euh, programme bi nga xam ne moom la fas yéenee def ci 40 ans yi nga xam ne ñëpp moom la ñuy xaar actuellement alors ci kanam dinaa ñëw ak yéen pour waxtaan ak moom mu fësal programme bi nga xam ne moom la fas yéenee indi man ko ma gisee tey man maa leen di indi la exclusivité ci anniversaire Collé Ardo Sow en direct sur Actu Plus Raxu Nous revenons avec Koumba Guissé, donc euh voilà c'est le live ah donc Khadija euh, <laughs> am na loo doon wax. dëgg la am na loo fi dugal man raxu. loolu loolu loolu. Ah. baal leen ma de. Ah. ñu ngi nekkoon wax lu am solo. mais loolu. Kumba tamit mi ngi doon wax lu solo ndaxte. waaw waaw Collé Ardo Sow c'est 40 ans quand même ah. kenn du ko présenté kenn. xale yi xale yi moo ñëw moo ñëwoon daaw Lyon yi bu ñu préparé bu ñuy dem ci kan ñaw ya jig nañu dem ah Lyon yi wala Lyon yi ñu dem kan ba kan ba Lyon yi vert blanc ñaari ñaari daal jig nañu nañu ñawalaat moom na mën na nañu mën na mais artiste la moo tax muy def noonu ah, vraiment ah vraiment vision bi mu am vraiment ndaanaan la et puis jig nañu en fait jig nañu jig nañu on est parti moi je connais la la partie triste de l'histoire je connaissais son fils qui est qui est décédé waaw ndeysaan di ko di ko ñaanal yàlla na yàlla waa oyofal suuf ci kawam voilà mais c'est une grande dame hein, parce que depuis petite dañ koy dégg Collé Ardo waaw Collé Ardo Sow elle a fait le tour du monde surtout par rapport voilà. par rapport mu représenter Sénégal surtout man loolu laa visage boobu loolu laa jàpp ci moom quoi moo doon xëccoo réew mi mhm. non Juma Jeng Jaxate moo doon xëccoo réew mi <laughs> ñoom ans aussi ñoo koy xaar ci politique bi ah peut-être la kenn mënalu ko dara mais raxu yaa ngi nekkoon fu am solo de raxu waaw Wally Seck toj na Bercy mais li mu sol baaxul pour Bercy li mu sol baaxul daal ah. lan la sol ñuy wax ci suuf moom la ñuy wax ci kaw waaw la ngeen doon day juum ci soloom ñu baal ma ah solo bi daal soirée de gala sax des fois sol li ci war a sol hmm. am nga ci bés waaw am naa ci bés le 30 le 16 décembre passé t-shirt la sol waaw am na place yoo xam ni hmm. dafa war am habillement waa di tollootul foofu hmm. moom direct nañu waxante dëgg rek ñëpp xam Wally ñëpp kaa wax la lu tax muy soloo noonu papa gis na boo bëggee ni da nga koy nangu wax dëgg. ñu ko bëgg ñëpp ay fansam ñi dañoo am moyen ñi amuñu moyen. muy. may déglu waaw li may déglu déglu ko mais des fois mu sol lu oyof. on n'en disconvient pas. Mhm. waa di sañse rek lay def. pour ay fansam lu cher rek lay sol. waaw mais pour ay fansam. non mais milieu bu nekk ak la nga fa war a sol. tey waale bu defoon costume africain. Eh. ñëw taxaw sañse eh. lu rafet. costume africain dafay jaay destination sénégalaise nañu waxante dëgg. Eh. saal ba tàngul tàng goo seddu seddu goo xam ne bëmbës war nga ko sol. nañu waxante dëgg aussi que tey jii nii euh, waale mi amul benn raison. non si am sa bëmbës dafa xew France. am na kii gën doon moo bëgg waale dafa xew France bëmbës bëgg waale gi bàyyi bàyyi ko rek. waaw ñun ñoo bañ waale ñun. mais waxoo ko dëgg. Euh, bombos dafa xew France. <laughs> dafa xew kii xam na la may wax. Ah. bombos saal bi xam nga la alaaj moom alaaj boo ko waxee. cinq minutes cinq minutes lay def ci kaw scène bi dix minutes. bu génnaatee day sedd. raison de plus. du sol ay kër non mu wé mu wékk bombosam. mais donc après ko summi. non mais dafay doon bëgg a euh, dee saal bi la. saal bi la am na ko may jaay yére parce Prince Shop moo may jox yére dafay sori Prince Shop maa ngi jar bu baax a koy jabaxal bi sërëxal bi sama sincère moo fa jaar Prince Shop maa lay jar bu baax a baax <laughs> ngi mel ni ko aña ngi leen foog nga ñu may ñi dëgg la dañ koy soxla dëgg la man dama dimbali daal ñu dimbali amul problème xam nga sax man man li may wax ak kii li may wax bokk xam nga ay solo c'est pas importance mais nag foofu laa c'est pas importance en matière de com habillement dafay dafay jouer. merci yow. waaw li mu sëree lii. ngeen ne ngeen ne lii. waaw li mhm. pour pour rejoindre li gars yi di wax gis na en matière de com. habillement dafay ou joué. gis nga suñu président yi ku ci nekk balaa ngay dem sa cravate. say chemise ah li nga wax garaaw na de. ça joue boo waxee Wally Seck en fait en matière de com lu muy solo li nga wax dafa garaaw. parce que. non mais Wally Seck lu muy sol en fait c'est-à-dire que des fois dañ koy.

l'image c'est ah, c'est-à-dire pour man foofu laay waxee en fait donc quel que soit alpha ak foo mënti dem artiste nag parfois mu am na ay tenue de scène loolu mën nañ ko comprendre l'image elle est importante voilà donc pour juger Wally ci habillement ou pas man waxee ma fa mais en général j'ai bien dit la communication mais moom raxu raxu artiste bu solo je pense que les les anciens parce que moi je je peux parler des anciens parce que je maîtrise un peu les anciens. Mm-hmm. Euh, mais euh, lu ñuy solo ça parle en fait la culture ça ça parle c'est c'est c'est le message qui passe. Mm-hmm. je sais pas ndax Wally Seck comme ça lay solo ou pas moo tax mënuma mënuma xuus. Wally Seck daal lu mun a solo mën ko. li li wax rek ay faux type la. dafa mën a sol mën a segse sol lu rafet. yooyu muy wax yëpp dafa xew si jamono. léegi duñ leen may loolu. loolu la duñ leen ko may fii moom. léegi eh, nañ jàll ci leneen ñu bàyyi kii ñu ngunu ngunu ngi. waaw léegi nañ ko déglu comme ça ñu changer suñu transition. non non euh, euh, bàyyi jàmbur bàyyi jàmbur du ma la may loolu. parce que yow di nga Sofia yow. yow di nga Sofia. am di kii mën a nag. am di. ci style boo xam ne tey jii defe naa mm. loolu tax na Wally doon lu mu doon tey mm-hmm. parce que style am c'était un peu particulier à ses débuts mm-hmm. Wally def na tey boo mm-hmm. euh, vestimentaire am daf ko war a changer te ñii wa nekk waa kër Wally xam nañ li ma wax saalu Bercy ban seddaay moo fa ne ba nga sol bombal doo sol lu oyof lu léger waykat bi fa tëgg sax xoolal mu sax. wala sol bongo de. bongo te nag ña nga oro. siiwul sax. diina de gala buy na sol costume te bàyyi sol costume sol bàyyi bàyyi sol sol. yow njëkk a laa wax. laay laay laay laay invité d'honneur bi. ça va vous allez bien da koy. da koy wéyaan ay <laughs> fañ la def baaxul de benn la benn la benn la. Ari fi nga toog baaxul de. loo baaxul de. <laughs> sama nami un ne. <laughs> sama xarit ba lu ba xarit ngi nii. ah bon ah. <laughs> changé nañ sensibiliser. mais nañ sensibiliser. mais li ñu doon waxtaan am na solo. yaa ngi doog def lu ma nekk. waxtaan am na solo nag. amul solo amul solo foofu du bës bi. am na solo kay foofu du bës foofu du bës bi. am na solo foofu arrêt la foofu du la nag yox la. wax ci kii mais l'international bi dem dina de gala cos lay la arrêté. kii di sol cos de. ah. ah. Henri Camara. Ah. lu muy saal na gala. lu muy saal te système bu toog lay def. waaye tenue africaine la jël. yaa ngi dégg kon nuyoo bu ñu ko nuyoo dinaa ko posé question boobu direct ba xam booy dem di gala nga sol ko sol ba bu ko bu ko deful dara yow pare. baale na ko Cheikh Baal ñu rek kii suñu xarit la bu ñu ko gisee nii émission maa ngi doo ko yéen nga may doo ko teg ma neex. <laughs> ay. ku sa xarit bi may la bii de. waaw boo ko naan rek xam nga. ah gis nga. ay baaw. Amdi. ah émission bi nu mu tudd. quatre complices. <laughs> ah <laughs> dañuy dalal suñu invité. Mhm. di Henri Camara ñu tàccu ko s'il vous plaît. bienvenue. on est sur la 2STV c'est le live c'est l'after plus et nous avons un grand footballeur. Mhm. qui icône la ci Sénégal monument la référence la li mu def ci Sénégal. waaw ah. dinañ ko waxtaanee fii ak ay ati ati at at am na lu mu fi bàyyi. Mhm. Fatima suñu invité loo mën a wax ci moom. déjà di ko wax dalal jàmm c'est un grand frère un ami. Mm. déjà c'est disponible itam parce que mm. Henri d'habitude il aime pas trop les plateaux bëggul plateau da ngay wax ba sonn mu ne non Fatima naa ñëw naa ñëw. mais nan nga mu ñëw. Henri ah. sama grand frère la. football euh, au-delà de ça boolewuñu mais sama grand frère la. parce que liggéey bi da ciy jàpp naan ma defeel nii defeel nii defeel nii des personnes yoo xam dañu lay suivre de loin saa su ne dañuy sàmm fan ngay jaar fan nga dul jaar kon grand moo tax ma ko woowee mu ne amul problème dinaa teew. d'accord kon euh, mon grand. dalal jàmm ci plateau After Plus. <laughs> bienvenue si invitation bi mais d'abord damay nuyu borom kër gi El Hadj ak jabaram madame Ndiaye. di kontaan di bokk plateau ak sama copain. nga xam ne dina ko gis <laughs> bon voilà ça fait ça fait plaisir quoi man moom comme ni mu ko waxee rek. j'ai pas l'habitude di def ay émissions directes wala kii c'est pas parce que dama. dama ko bañ mais je suis un peu ba pare du sama habitude mais tey moom dama forcé tu es timide entre nous oui euh, très timide très timide. mais tey timide bi dama koy teg de. ma ma nekk ñu saal de <laughs> ma tàcc tu es timide ah. jëlal loolu rek. <laughs> mais nice maa ngi maa ngi rafet. quel plaisir de te voir. Mm. merci beaucoup man tamit ah vraiment star ah la ah icône la icône la. je pense que seen génération boobu gëmuma ko nag. ah gëmoo star la. je suis ah. simple man moom. booy temps laa quoi ah, donc yooyu gëmuma. dëgg la Kapsi. booy Kapsi dëgg ah. mais star nga nag quoi. non gëmuma wax boobu. mais du ko dund quoi il est simple. mais man mën nga ko bañ a gëm mais gars yi dañ lay forcer star bi. Mm-hmm. parce <laughs> man sama question mooy Henri Camara. Mm-hmm. Euh, c'est vrai que bàyyi nga football. football moom da nga jël bi teg. Mm-hmm. léegi lan mooy euh, sa activité qu'est-ce que Henri fait. Euh, depuis moo bàyyi quoi tu donc moom lay gën a liggéeyal si yenn business yu may def. ok te man sama affaire du lépp si suuf la ko donc. maa ngi liggéey quoi maa ngi. le football te manque. Oh. niveau bi nga nekkoon est-ce que ça te manque. mun naa wax waaw mun naa wax déet parce que bi ma bàyyi yàggul tamit quoi. Mhm. moo tax des fois match gala yi sax bu ñu ma invité du ma du ma sawar dem. pourquoi. li ma joxe si football dafa bëre. Hmm. joué naa ba 42 ans. gisuma jour bu ko am sama génération bon. parce que physiquement man dama dama nekkoon jour boo xamante ni dama. Euh, hygiène de vie bu baax la amoon quoi. moo tax chaque fois da may gis salle bu ñu nekkee gis nga nu may entraîné. Mhm. donc euh, damay pare ñu foog ne combat la laay laay pare sax. mais football bi daf may manqué mais. tey salle bi may dem moom mooy euh, tey moom laa remplacé comme tey su ma doon yeew di dem entraînement quoi. Mhm. donc su ma ñëwee salle damay joxe li ma am. ça fait du bien. waaw ça fait du bien quand déjà on, on parle foot parce mhm. qu'actuellement le Sénégal joue contre oui. Togo. Mhm. Henri xam na bu baax Togo parce que 2006 nous avait éliminé ci wàllu coupe du monde. Mhm. d'abord quand je quand on parle de Sénégal Togo Henri bu ñu nee Sénégal Togo. ban genre confrontation ngay xaar. bu metti. parce que daf may fàttaliku 2006. 2006 ah. waay bi ñu demee Togo match bu doy waar nañ fa nañ fa jële match bu metti. <laughs> te may fàttaliku. penalty bu mu amee man maa ko raté. Mhm. après mujjee bi ñu gagné ñu 3-1. Mhm. éliminé mais toog naa une non toog naa deux semaines yoo xamante ne Sénégalais yi man lañ doon wër. pour dagg sama bopp. Mhm. donc jouer Sénégal foog nga nekk. Euh, mental d'acier foog nga am mental mental lu sax laa ko mun waxee. ngeen baal ma si wax. parce que sénégalais moo lay téye léegi ne yow la suba mu wàccee la. gis nañ fi yàggul euh, Sadio Mané balaa mi nekk vrai Sadio Mané. vrai Sadio tëdd na si terrain bi di jooy. Hmm. parce que fi ñu ko doon xaaree. Hmm. ak lu mu doon def Liverpool. donc dañ lay dëkkal fi nga dëkkul quoi. parce que yow da ngay ñëw da ngay ñëw. voilà da ngay ñëw pour joxee li nga am mais dina am loo xamante ne bon peut-être doo am chance boobu. Hmm. chance bi ngay am bi ngay nekk club. di dugal boo ñëwee Sénégal calé gars yi ñu la may loolu. ça veut dire ni buñ bu ñu amee confiance yow. duñ la may dara. exactement. voilà man foofu laa yoo xam ne Sénégal Togo mosul yomb. mosul yomb actuellement c' zéro bi partout parce que gis nga Sénégal déjà moom dalalee Soudan. Hmm. dafa ñëw rek bii matériel la ko dugal sixième minute. là on peine à marquer déjà. ce qui montre que ne aujourd'hui euh, je suis pas le, euh, actuellement le match bu boo ñu mënee jox score bi toujours c' est zéro bi partout. Hmm. mais Henri Camara wax nañu léegi ne ni Togo léegi dafa metti confrontation. Hmm. cette match Soudan bi seetaan nga ko est yaakaar nga ne tey jii on va on va rebondir sur la Coupe d'Afrique cette génération yéen y cette génération boo xam ne ils nous ont fait aimer le football. Mm-hmm. man mën laa xamaat sama classe ki génération 2002 euh, ñoo ma xam loo football moo tax ma fugg football est-ce que yaakaar nga cette génération 2002 euh, ak boo ko doon def euh, comparaison lan moo nekk différence bi un peu. cette petite différence. du benn du benn. ci ban non jël nañ coupe coupe d' Afrique mais du benn. du benn donc euh, équipe bi ay jeunes yu am talent la yàlla dimbali leen ñoom ñëpp ñu ngi ci ay équipes yu mag. ñun bon ci ay équipes yu ndaw dañ nekkoon. mais ay vrai dara ragal ñoon dara ay jour nañ ñëwoon yoo xamante ne sax bugguma di wax ay secret des fois mais. di nga xoolante ak nit sax. mais mënuwoo sax wax si ñoom. waaw gars yi c' était des vrais lions. des vrais mm-hmm. Mm-hmm. waxuma ñii si ay faux lañ de parce que ba gars di ko def. mais ñii c' est des vrais lions ba pare ay guerriers lañu am nañu chance ñun amuñu woon chance gagner coupe d' ñoom am nañu chance gagner coupe d' Afrique te am nañu chance gagner waat coupe d' Afrique. waaw loolu laa doon rebondir est ce que am nañu chance doubler ko. am nañu chance parce que équipe bi nii bu tay bi nii bi ma gis nii Aliou Cissé yore. Mm-hmm. gën équipe bi gagné woon. ah, ah bi moo gën a taxaw. waaw ah, bii moo gën a taxaw. parce que bi am appréciation par rapport ak coach Aliou Cissé parce que au début vous aviez Bruno Metsu. yàlla na ko yàlla yërëm. ngeen mu nekkoon koo xam ne bi vrai que yaa ngi koy wax ñi fi yéen ñi fa nekkoon ñu bëri nekkaloon ci club yu mag. et mm-hmm. pourtant c' une équipe soudée boo xam ne mi ngi doon gagné des grandes compétitions bii ñu am Aliou Cissé jël nañ coupe. macha allah dem nañ ci dem nañ final. Mm-hmm. dem coupe du monde deux mais tout le les gens critiquent par rapport ak moom. ci ni mu yoree équipe bi en tant que joueur ban appréciation nga ci am. mais balaa muy tontu foofu il faut que mu ñëw fii déjà. Mm-hmm. parce que c'est important. Mm-hmm. Euh, ci li nga doon wax ci équipe bi nii. Mm-hmm. lan moo tax nga ne équipe bi moo gën a taxaw équipe bi jël. voilà loolu laa naroon xam non tey boo xoolee équipe bi gagné. ñi ne woon ci banc bi. ak tey boo xoolee équipe bi ñu ne ci banc bi du benn. du benn. a des joueurs nekk fii ñu gagné woon coupe d'Afrique. bi ñuy gagné coupe d'Afrique bi ñuy gagné coupe d'Afrique mhm. deux premiers matchs yi seetaan ngeen ko. oui c'était difficile très difficile. duñu génn duñu génn. Sénégal duñu génn dégg. waaw waaw équipe bi kenn xamul mais équipe boobu moo dem gagné. Mhm. Mhm. mais équipe bi nii man am naa yaakaar ni du taxaw kenn parce que am nañu banc te équipe bu amul banc moom mooy loolu. da ngeen di xool rek da ngeen delluwaat ginnaaw ngeen xool Coupe d'Afrique deux deux premiers matchs yi laa leen wax de. nu mu méttee woon ci Sénégal. te dafa dafa ay manquant. Mhm. période Covid bi la. yenn jours yi ñu leen di critiquer mais ñi yan façon jours yi di wax. mais équipe bii nii du suma si kenn koo xamante ne. Mhm. bu duggee mën nañu wax ni kii non. mu gën a complet voilà dañu complet ko pourtant foofu dagguma la tout le temps dañuy critiquer par rapport ak onze de départ am yi. a des anciens on appelle comme ça les cadres. Mhm. tout le temps Aliou dañuy indi débat là ne les cadres là on plus voir joueur en tant que sportif qu'est-ce que ça fait nga nekk ci équipe nationale tu tout gagné avec cette génération. Mm-hmm. je peux nommer des noms mais bàyyi noonu sax bara bañ a dugg ci mm-hmm. débat boobu noonu. mais aujourd'hui dañu di pointer ñu ne ñu ne cadre yooyu amatuñu place parce que y a des yoo xam ne ñu ngi ñëw comment un peu yow ngay suivre débat boobu sur ces cadres yoo xam ne dañu naan dañu war a pousser à la porte ils n'ont pas ils n'ont ils le Sénégal lañ nekk Fatima. waaw man ñaata at laa def Sénégal si def mu treize ans si équipe nationale. Mhm. critique dafa bokk si équipe nationale. donc Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ne football bi dafa ànd ak critique donc boo ko bëggul rek da soit da ngay bàyyi nga dem sa yoon quoi. anciens yi dañ fi nekk pour gunge booyee ñii ñu leen li leen dese bëriwul. Mhm. ñu nga bëggoo tudd seen tur mais lu leen dese bëriwul. peut être coupe d' Afrique moo leen dese wala ak benn coupe du fekkee Aliou nekk na ku baax mu yóbbaale leen. Ah comprendre mais mhm. góobu ni coupe du monde dina leen fekk fii mhm. mais coupe d' Afrique moo leen dese. mag dafa baax des fois. muy di gunge xale yi. c'est important mm-hmm. Mm-hmm. léegi mën na revenir si question. na mm-hmm. tontu boo soxoree gars yi booy ñoo ñoom seen bopp ñoo lay éliminé. mais nag gars yi si ëpp ni ñi critique nag mooy anciens yi nga xamante ne dañoo perte. amatuñu dara. ñu bëgg wéeru ci kaw Aliou Cissé di critiquer. critique nee naa la critique dafa bokk. ci football boo ko bëggul da ngay bàyyi. Mm-hmm. Mm-hmm. man bu may football dégg naa lu ne. te man mm-hmm. maa newoon meilleur buteur équipe bi. bu ma dugalul ñu ne xamul dara. bu ma dugalee ñu ne yaa fi mën. dëgg la mais loolu da nga loolu boo ko boo ko xamee. ci Sénégal yi du war a war a sonn. foog nga am mental comme ni ñuy wax mental de fer. mais man benn question rek bu ndaw. mais boobu maman boobu xam nga man la woon xam nga bu ngeen dugalee kii bi ba fas yi ñëw. non kii la woon euh, euh, non pas Mali autour sax Côte d'Ivoire. Nigéria Nigéria 2000 2000. waaw ba ba ba fas yéene waaw fas bu mu duggee man dama gis benn image boo xamante ni ci yow. Euh, daw ko benn xeetu daw boo xamante ni man loolu foog naa ne yaa raw ak Macky Thiam. <laughs> maa gën a gaaw de <laughs> mais lu leer la wax ah. lu leer la wax. Ah. bi bi bi bi. Euh, Nigéria dugalee deuxième bi xaw ma. deuxième bi waaw. man dama tourné rek gis benn fas bi ñëw si man ma ne ko gënoon gaaw de. <laughs> <laughs> c'est fou ça. ah oui lii dafa neex. non parce que ñoom bu ñu dugalee deuxième bi bi dañu foogoon euh, bitan noir la quoi. jeex na suba tey di dugg fas yi dugg. ah ouais Henri Camara man xam naa ne. waaw ah, mais est-ce que du tontu ci sama ah, question bi. par rapport ak appréciation bi nga am ci Aliou Cissé que da ngay gis sànq sax xaw na ko soulever ci onze de départ am yi wala ci changement mi yéex a def changement parfois aussi ci génn classement ñu bëree bëri bëri di ko critiquer même si jël na Coupe d'Afrique en tant que nga nekkoon coéquipier am en tant que aussi ancien joueur en tant que sénégalais nekk amateur ban appréciation ngay am ci loolu. si Aliou Cissé. oui ci Aliou Cissé. bilan quoi. waaw bilan ah, que moom naka naka lu koy gisee exactement. bilan bu baax la. bilan bu baax waaye naka koy gisee bon xam nga si Cissé dafa dafa am style boppam. Hmm. ay wax ba suba tamit faalewul kenn. Hmm. wax bi tam dérangé wu ko. comme lu may wax sànq rek mental la faire bu mu am xam na sénégalais yi nu ñu mel. gagné na ñu ngi koy critiquer. bon entre vous. Mm-hmm. normal. normal fu ñu gisantee au calme. waxtaan waaw t'as jamais appelé di la laaj ay ay tout ça. alors avant la woon quoi. avant mais. qu'est-ce qui a arrêté ça par exemple. a qui a créé un changement. changement en comprendre. comme changement parce que il a. pourquoi y a plus de nouvelles. voilà pourquoi y a de nouvelles. non non y a y a des m y a vas-y vas-y. non non non non non non non décoré nañ leen foofu noonu cette génération. de 2002 mais on voit pas Henri Camara comme. comme El Hadj Diouf comme parce que Henri d'habitude c'est quelqu'un il est très dépassé dans son rôle. il va répondre il va répondre il va répondre. am na kii am na kii am na kii daa gëm boppam. mais yow deux jours yaa ngi dégg kii Henri Camara mii daa gëm boppam. yaa ngi dégg buñ ko woowee dina ñëw buñ ko woowul du ñëw Eh. loolay wax ji. Ah. waaw wax dañ koy wax. moom xaritam rek lay am na loo xamante ni tey jii ñun duñu nangu koy def. ñun nag nañ woo ñu ñi si jour yi ñi xamante ne nii déggal nañu. ñu bàyyi leen woo conseil bi. bàyyi ko affaire yaa ngi ñu woo dinañ ñëw ku ñu woowul waaw ñu toog ñu ñu ngi si business. ku ma ay waaw kay kon yaa ngi si business bàyyi mu wax <laughs> moom mu jël baaxul. Ah, en fait, la question, c'est ça. <laughs> Pourquoi on ne vous voit pas comme les autres, comme euh, Tony Silva, El Youf, côté d'Aliou Cissé, comme les anciens joueurs Qu'est-ce qui s'est passé, Est-ce que je suis obligé Merci. Que Il n'a pas de vous Est-ce que, est je suis obligé Est-ce que je obligé, Nekofo C'est-à-dire Est-ce que c'est une obligation qu'il soit autour de cette équipe nationale waaye mais quand on parle de suñu waxee El Hadj Diouf wax euh, Tony Silva ak ñeneen ñëpp. mu woo leen te ngeen xam ne yéen ñaar am ngeen relation. Euh, gisuñu la moo tax ñuy laaj. ci moo voilà. yaa ko wax léegi léegi avant daal la doon woo. après woowu la amul problème kenn suñ ma wooyee ma ñëw. suñ ma ah. woowul tamit comme kii li mu wax rek. Mm-hmm. waaw soo demee calme. mais problème ay question tamit xam nga dañ lay jaxase nit ñi xam nga yow. waaw non day question kenn du ko jaxase ma ne la xoolal maa ngi tontu am na loo xamante ne dama nangu tamit ñu jël suñu invité. kii sama xarit la. waaw sama xarit la bon am na yenn question yoo xamante ne du jàll. ah tey rôle protecteur bi nga indi de non non yooyu du bëri. tey nee na protecteur la quoi. am na euh, dama lay changé. waaw et tout. waa dégg nga. léegi nañ ko déglu. alors ñu ngi koy dalal Henri Camara il nous a fait vibrer en 2002. yooyu ñëpp a lay vibrer de dix barki plus de dix ans après maam Thierno fa mu wax yow. kan ndaa ma daaru moom dong képp rek. daa neex rek yow. duguma foofu sax. alors moom mi nga xam ni ndeysaan maa ngi am benn cousine mm, daf ko bëggoon desaan mi ngi tudd Anta Fall depuis Cambérène euh, ndeysaan da ko doon xool ci télé bi di joo joo yu metti ndax bëggeel bu mu amoon ci moom mi ngi toog di seetaan depuis Espagne nee na mi ngi lay nuyu bu baax a baax a baax ah, alors euh, comme ni ma ko waxee rek euh, temps yu neexoon lañu doon dundu ak sunu anciens joueurs internationaux yi Euh, tey ñu nekk peut-être dix ans après wala plus de dix ans après tey génération bi ñu gis tey comme ni mu ko waxee rek euh, ñoom ay gaynde la ñu woon te ñun ñi nga xam ni euh, boobu mi ñu fekk élémentaire ñun xamoon nañ ni ñii ay jàmbaar la surtout moom na mu daan jouer ak complicité bu mu amoon ak feu Pape Bouba Diop c'était un gars boo xam ni da doon dem ba jeex da doon rayante ngir mën a am ndam ci équipe nationale mm. donc tey peut-être am nañ ko ci sunu actuels internationaux yi mais ñoom fugg bi ñu doon demee amuñu ko. mais fi ma doon dugg rek kii laay rejoindre tuuti peut-être moom euh, euh, euh, li ma koy laaj mooy Henri tey gis nañu El Hadj Diouf dafa wax ba dugg fédération sénégalaise de football wax na xeex na bay bëgg a dee ba dugg fa. te tey peut-être fu ñu waxee du question de Aliou Cissé wala Henri Camara mais peut-être euh, fibre patriotique bi nga am pour sa dëkk. parce que soxla nañ la peut-être ci expérience ci résultat yi nga jot a def malgré jëlu leen li nga xam ne moom mooy coupe. lool c'est très important parce que xëy na coupe chance la rek pour nga mm. jël ko mais mm. nit ki li mu joué. Ah. ak li mu def ba am ndam tey. bokkul ak li nga xam ne moom mooy chance bi. je pense peut-être xëy na mën nga xeex tey ba dugg fédération sénégalaise de football en tant que peut-être euh, conseiller. waaw soxla nañ la fa mm. techniquement. techniquement mais du nekk loo xam ne peut-être yow yaay toog nit ñi di la ko xeexal. comprendre nga peut-être yow mën nga jóg xeexal sa bopp ba dugg waaw laajal ko sa bopp ba dugg ci parce que soxla nañ ko te ñu toog di seetaan aussi soxla nañ Henri Camara biir euh, euh, biir biir équipe bi gën leen compléter mais également euh, pousser leen à ba ñu gën a dem ci kanam bien vrai que mën nañu aussi bon loolu lu la ci yow kii bu noppi balaa muy non xaaral man balaa ngeen di posé question ku posé question bàyyi na ko tontu après moom méttiwul question boobu méttiwul ci boolee bu leen ci boolee dana dana dana question boobu méttiwul de méttiwul waaw waaw xaaral ma wax sama avis ba pare moom wax avis loolu c'est bien beau Sénégal c'est bien beau ñëpp ñëw mais bu ñu ci boole. ah déglu mais warul ko ci. dinañ ko xaar parce que xamul tax Sénégal yëpp jël seen carte na noo ma ñëw ma téye na bàyyi ko mu tontu. parce que da koy dóor da koy dóor. kii sama xarit la de. waaw ba tey yaa ngi koy dóor kii dañuy nekk chaque jour xool gëj na ko gëj na ko ayca. loolu loolu du problème man tey bu ma bëggoon dugg ci émission bi damay dugg. Mhm. parce que Augustin ñëw na sama kër ñu waxtaan avant Coupe d'Afrique bi moo xool li ma xalaat ci équipe nationale moo xool li ma dund ci équipe nationale mhm. euh, Aliou Cissé yaa xam te ne ma ñëw seet si xale yi waxtaan ak ñoom parce que saa buñ buñ gisante daf ma koy wax yow lañuy ñuy xaar. mais ma man ma man maa pareegum pour pour dugg équipe nationale. Mm. loolu moom c' est personnel. dem toog waxtaan ak booy loolu c' loolu aw ma problème ak booy parce que booy saa bu ñuy joué sama yenn booy yi nga xam ne am na. mais kon am na lu la déranger. dinaa leen yónnee message dinaa waxtaan ak ñoom jox leen loo xamante ne c' est au calme. ma loolu mais dem équipe nationale moom franchement. Ah, bés bu jotee rek dina jot. 1998 bés bu jotee dina jot quoi loolu gars yi xam 20 ans de carrière. Mhm. qu'est-ce qui a fait la longévité de Henri Camara. bon mais li mooy wax rek. hygiène euh, nga man dama nekk jour boo xamante ni. hygiène mhm. de vie bu baax la am. Mhm. bu baax xam naa lu may lekk. heure bu may entraîné bu ma paree dem tëddi. booy kapsi laa heure foo bu jotee damay foo. football dama ko jox gëddëm. moo tax ma egg fi ma egg man. joué ba 42 ans. 18 clubs. 42 ans là. 18 clubs. 18 clubs. Tu as fait 18 clubs durant tes 20 ans de carrière. Qu'est-ce qui a fait que tu n'arrives pas à durer dans les clubs euh, Parce que bi nga gën a yàgg si Wigam 4 ans. ok qu'est-ce qui a fait ça dama amoon benn agent bu bëgg xaalis. Mhm. te man tamit baal baal la. Mhm. chaque année mu woo ma ne ma alors am na benn club. loo xalaat bu fay plus yokkoon nañ la plus. ma ne ko acca nañ dem. may job ñu may fay. très bien oui. Euh, Henri man euh, je pense que ma question va porter seen ànd bi ngeen doon ànd. Mhm. nekk ay wax nga ko sax ne nga sa famille sax amoon temps nekk ak ñoom. Mhm. Euh, moment yooyu naka nga koy dundee léegi naka ngeen di bu ngeen bëggee gisewaat entre vous walla ngeen am communion boobu entre vous naka ngeen koy dundee muy yow Fadiga Diouf et cetera. Euh, xam nga léegi ku nekk dafa nekk ci business. ci business amatuñu temps lenn rek moo ñuy dajalee léegi. match gala am. ñu daje waxtaan tooñante après ku nekk dem sa mais am ngeen groupe waaye du ngeen ci wax lu bari am nañu groupe ah. WhatsApp. Mm, mais timi timi kii euh, sànq da nga wax ne da nga xaw a timide mais dañu gis ne souvent yenn jours yi bu ñu décroché en fait soit dañuy nekk ay animateur si télévision wala leneen. en fait pourquoi voilà wala chroniqueur pourquoi Henri Camara préfère rek toog sans rien faire en fait à la mm. limite. moo jaaxal ñëpp. <laughs> peut-être parce qu'il a mooy sama jaamu yaram man. mooy sama jaamu man. nga mm-hmm. mais dafa am question. Euh, vas-y. Sadio Mané ba match bi mu doon joué su Soudan mi ñu doon fêté. Mm-hmm. ñu ngi ko doon jox maanaam pour cinquième sélection. Henri mm-hmm. Camara nekk une légende vivante boo xam ne je pense que def nga lu nit mënta dindi. est-ce que ci moment ba ngay tollu amoo moment bi frustration nga matal li Sadio Mané matal muy cinquième sélection. ñaata kii la def nii moom. ñaata 99 99. benn sélection la marqué. de l'équipe nationale. ci moment ba ngay nekk sax en quatre ans yi. même buñ lay buñ lay sax nga ñëw jouer benn match au moins pour ñu honorer la rendre le hommage parce que vous le méritez est que amuloon frustration nga toog frustré woon. non mais xam nga Sadio dafa nekk joueur boo xamante ne il mérite tout dafa yóbbu. turu Sénégal foo xamante ne. Mhm. lépp lu mu def rek. mu jot ko. tu vois Gana Gueye pareil mu baatee sama record san yi. comme comme message xam nga man am na yoo xam ne newuma si quoi. donc euh, c' est vrai man ak Aliou Cissé mos nañ ci wax mais après mu nekkul xam nga nekkuma nit boo xam ne damay ñaan. sans sélection bi mu ko bëggoon. Mhm. jamono yooyu dama koy am par force xam naa fu may dugg xam naa nu may def pour am ko dinaa yuuxu dinaa wax te par force dañ ma ko jox. Mhm. Mhm. mais comme dama nekk jour boo xam ne dama joxe pour sama. équipe nationale joxe ba dem ba jeex. Mhm. kenn musuma may dara. lan moo tax may ñaan benn. ñoom ñooy am xel rek ne xaaral ma may ko mais comme dafa am fu mu toll si ñoom. may ñu ma ko may garaaw. est-ce que là c'est trop tard. non c'est trop tard man j'avais une question par rapport ak pépites sénégalaises yi les pépites yoo xam ne ñu ngi doog ñëw on va parler de notamment le jeune Amara Amara ne koy sur la euh, Lamine Camara. Mm-hmm. Euh, lan lay def nga ngay seetaan ces jeunes ak lan ngay xaar si ñoom d'ici quelque temps un message boo leen doon lancé parce que début carrière am solo. Mm-hmm. là on parle que ne demain c' est le match du Sénégal contre la France. Mm-hmm. foofu moo tax may rebondir sax ñu jóge ci U17 dem ci ce match là match boo xamante ne vous avez vécu 2002. quand on parle de Sénégal France aujourd'hui say jeune frère ñoo koy joué mooy demain bu ñu waxee Sénégal France lan lay représenté ci yow avant de parler de ces Euh, ay souvenirs yu neex waaw ah. parce que daf may fàttaliku rek euh, veyu veyu match bi bu nekkee si sama néeg man ak euh, Pape Bouba Diop mhm. ñu toog à quatre y avait kan y avait Pape y avait Pape Thiaw ak kan Malick Diop je pense ak Omar Diallo ma ne ko booy boo dugalee boo dugalee contre France da ngay simi sa maillot sànni ko ñu tourné noonu la ñu war a fetee man man dama doon wax noonu rek. affaire bi am moo bon veille bi yàlla dimbali ko moom mu dugal ba pare loolu la def donc mu doon match boo xamante ne kenn xaaru woon ni Sénégal day gagné. moo tax ma ne la équipe boobu noonu ay vrai gayte match bi yëpp dañ ko défendre dugal benn bi. mu jeex mu jeex. Euh, Pépiti tey on a Amara Diouf. Mhm. parce que c'est des débuts de carrière. on a Lamine Camara mu dem Metz tey jii ñu ñëw ñu lancé leen on parle que de ces jeunes là ce moment là qu'est-ce qu'il ressent parce que Henri Camara dund la loolu. Mm-hmm. actuellement naka lañ mën a téye booy yooyu parce que fi ngay débuté mën nga def nii parce que carrière joueur dafa mm-hmm. gaaw baax na mais dafa gaaw lan nga mën a wax ci par rapport à ces jeunes là. booy Amara Diouf. Mm-hmm. ñëpp ñu ngi koy coow. mais booy bu amul euh, entourage bu baax du baax si moom. ah oui ah oui déjà il est blessé dafa dafa dafa doy waar. dafa doy waar l'entourage important. waaw mhm. donc foog parents yi xool nu ñuy gérer booy bi. entourage moo mun a defar jour moo mun a mun a yàqal jour moo mun a defar jour est-ce que xam nga jour yi ñuy dund. lu ñuy dund. lu metti te di ko mën a wax fenn bu dee da nga am entourage bu baax carrière bu baax di nga ko def. Mhm. mais fin carrière mun nga am fin carrière bu bon. Mhm. loolu joueurs yi dañ koy ragal wax sax. Mhm. parce que on peut donner un exemple un, un footballeur international. Mm -hmm. hyper connu mondialement. duma wax turam ils sont français ils jouent euh, en Italie. sa famille l'a détruit. loolu laa lay wax. te loolu joueur yëpp kay dund. mais mais comment on peut détruire un joueur comme ça. c'est ça la question est-ce que dañuy. benn benn question si Sénégal France. Sénégal France benn affaire moo ci bëggoon a fàttaliku. Mhm. mooy bu ñu nee veille match bi veille match bi gars yi dañ leen doon jéem a déconcentré ñu wax ay naan naan naan naan naan nañ fa ay jigéen. ànd ngeen fa jigéen. jël ngeen fa dem ngeen bitik jël fa ay seenu or. non bu dugg si yooyu non. ah dégg nee na lan yow. waaw dégg yooyu dafa war a leer. dégg ma nee na lan. Sénégal dañu doon waxtaan. man loolu dama dama ko jàppee man. média xam nga la. déconcentré waaw déconcentré. léegi nag yooyu nag. veewu masse ba <laughs> veewu masse veillu match bi bi affaire bi tàngee ba ñuy jël suñu ginnaaw bi di peinture di def nii. wala aari mënoon wax dalay wax. yaa ngi dégg aari mënoon wax sax ba léegi. léegi nag waaw waaw non bàyyi mu sedd rek. non dañuy waxtaan rek parce que affaire bi dafa nekk polémique boo xamante ne dafa ma umoon sama bopp. dafa nekkoon waaw dafa nekkoon. ñu ne ñu ne lan la wax lan da ngay wax lu leer. waaw léegi waxal ñu déglu moom laa wax dafa ne dafa ne. Ah. gars yi dañ fa gaa yi joueurs yi. joueurs yi. waaw loolu la ñu gaa yi wax ñun moom. jigéen moom moom doo leen ko bàyyi ginnaaw. yéen béyu mas ba ñu libéré leen dem leen dem dem leen dem leen ngeen seet. béyu mas man loolu moom. non man maa ko fekkee loolu moom. non non non non non Sénégal waree football football war a ñu xam ne dañoo bëgg a gagné. bàyyi libéré joueurs yi ak jigéen ñoom bu ñu entraîné ba pare taw ñoom El Hadj Diouf. non na fa tel fii xale yi waaw fis alors xoolal yaa ngi dégg ah. xoolal jigéen ñi xoolal. Ah, ñun ñoo newoon mais nag wute nañu ak booy yi léegi. parce que man gis naa ne booy yi dañuy fubal boo dee boîte de nuit doo la fekk. booy yi bànn nañ de. booy danoo ay séddaar nañ ko ah. waaw mais mais yaa ngi différence quand même. raxu xam nga kii wute nañu ak ñun xam nga mm. dafa am lu mu wax léegi ne bëggu mm-hmm. la bu leen population yi jox. ay nit lañ yoo xam ne soo leen gisaan. da ngay fi taxu kontaan xam nga ñi ay célébrité lañ mais Habib doguma la sax mais ñi ñoo gën a nekk star équipe bi léegi parce que ñi ay célébrité ay célébrité c'est des stars ñi da nga doon xool bu ñu doon dem boîte de nuit beneen affaire hop hop yàlla boo yàlla boo couple na hop hop hop mais oui ah, ah, ah, am na ñu doon takk des fois ay tout mais ñun suñu daan génn dañuy bëgg ñëpp koy bëgg takk maa ngi mel ni Henri Camara maa ngi kii solu comme El Hadj Diouf vidéo boo xam ne dafa daf ñu doon influencé muy ak Diouf ku nekk dafay bëgg mel ni mel ni ñi nag ay célébrité la mais ay màggatu ci la daal ci star c'est vrai mayo bi li doon braayé noonu parce que ñun à l'époque aussi on aimait trop dañ ko doon defee <laughs> <laughs> non mayo bi ni mu ko doon defee parce que yooyu bu ñu nekkee xale aussi dañ ko doon gis vraiment dafa doon inspiré quoi non non bu ko tontu nee na nga bàyyi mu man dama bëgg a wax demee si marché bi parce que dégg Fatima dëgg. a lii dafa fair play. amul professionnel. non li nga def amul professionnel. arrêté arrêté il faut ñu wax ñu benn. ñu ngi doon bëggoon diggante 2002. baal leen am. laa ilaha illa mais quand am na am na lu muy wax c' est vrai y' avait beaucoup de ñu doon wax ci ay ñoom dañ doon génn dem ci boîte. est ce ah, que loolu en koy confirmer Henri est ce loolu lu amoon la en 2002. mais dañ doon génn génn mais seen génn bi amaloon nañu njëriñ. Ah, ah non en bi dañ doon dégg même da ngeen doon génn ay ñoom juuf dañ doon génn. voilà dem ci boîte est ce que loolu lu amoon la seen. coupe coupe coupe mais dem dem naa benn euh, coupe coupe coupe d'Afrique euh, Bamako bi maa ngi woon ko mais veewu match bi. yaa raw ñëpp. yaa ngi dégg veewu match bi. yéen yéen woon bi. waaw dañ doon génn. waaw waaw dañu tëj boîte bi ne ne jigéen ne góor ñëpp génn. bu ñu andi jigéen ñi. waaw ki jigéen. ngeen génne góor malien loolu moom loolu loolu yaa ko inventé loolu. am na match boo xamante ne voilà coach bi dafa kontaan bàyyi ñu quartier libre. quartier libre waaw. quartier libre quartier libre bu leen ko nag mooy after plus. mooy after plus lundi au jeudi dañuy waxtaan dañuy tooñ suñu invité et puis aussi bu ñu waree waxtaan lu am solo dañ koy waxtaanee on parle de tout ici. on va faire une petite pause ndaxte Kumba Gissé mu ngi foofu ci këru Collé Sow Ardo je pense que si on va aller faire notre duplex Kumba Gissé si elle est prête. ñu daal di koy euh, jox kaddu voilà elle est là rebonsoir. rebonsoir Rakhou di la nuyu bu baax comme ni leen ko waxee woon euh, léegi ñu ngi nekkoon euh, ci espace Vali Sakhir doon fekkee si conférence de presse bi nga xam ne Collé de Sow mi ngi ko doon amal jëm ci préparatif ses 40 ans d' xam ngeen ne depuis bu yàgg gisuñ ko sur le podium. crise Covid 19 moo ko waraloon mais elle est de retour Tata Collé ñu ngi lay nuyu Sénégal namoon na la. Afrique namoon nañu. merci beaucoup sur la merci beaucoup Koumba jërëjëf merci beaucoup man kontaana naa aussi le fait que ngeen nekk fi comme d'habitude jërë ngeen jëf voilà namoon nañ ma maa ngi nii ah bon ñu ngi préparé 40 ans yi et que bon je pense que danañ def le maximum pour que ñëpp kontaan. en tout cas ñu ngi essayé de am na ñu war a ñu bëri ñu joge bitim réew euh, ñi ñu ràññee yëpp bitim réew ñu ngi fi ah créateurs africains yi ak euh, sénégalais yi nga xam ne ñoo may accompagner voilà ñu ngi préparé je pense que ça va être une bonne chose. sans doute bu waxee la reine naturellement yow la ñuy xalaat parce gis nañ euh, liggéey bu am solo bi nga xam ne dañ ko ciy def te tax na tey à l'étranger ñëpp xam euh, li nga xam ne moo di Pagne Cissé euh, tey ngay préparé say 40 ans. maa ngi préparé <laughs> xam na j'espère que li may préparé dina neex sénégalais comme d'habitude et que l'essentiel que man def naa ci sama xol maa ngi maa depuis. depuis un an maa ngi ci collection bi euh, mais maa ngi xalaat naa ne xëy na dina leen neex dina neex Sénégalais en tout cas lu lu may lépp lu may liggéey rek pour neexal pour bànneexlu nit ñi ñu kontaan euh, je pense que dañ kontaan ci li may def. en tout lépp loo def day neex Sénégalais yi léegi mën nga ñu wax programme bi kañ lay débuté ak yooyu. léegi programme bi tey la woon cest tey on def nañ conférence de presse bi euh, suba am nañ benn direct ak euh, des s euh, defe naa je pense que c'est confirmé des s ak Boubs sera là aussi Euh, après euh, le lan le le vingt cinq euh, créateurs yi ñu ngi commencé ñëw le le kii le trente la ñu commencé ñëw. le trente mais le vingt cinq yàllu a le défilé des jeunes créateurs ñi nga xam ne dañ leen ràññee ci liggéey bi ci ñaw bi. munu ñu woon jël ñëpp mais dañ ci tànn ñenn ñi pour que ñu mun a def benn concours boo xam ne après ñu seet kan tànn ci kenn parce que du ku ci tànne wala ku ci gën a mun a ñëw mais day foog ñu tànn xam nga boo bonee mbooloo foog nga tà kenn ñu tànn ci ñoo xam ne euh, euh, ci soirée de gala bi lañ leen di jox seen ay trophées euh, avec la mairie de Dakar avec d'autres sponsors ñoo xam ne danañ leen danañ ci bokk. après suñ paree loolu le premier décembre incha allah fekk créateurs yi ñëw dañuy def benn forum de discussion de métiers de la mode c'est-à-dire suñu métier bi. lan moo tax jëmuñu ci kanam lan moo tax li ma doon wax léegi amuñu unité de confection lan moo tax mënuñu exporter. parce que boo gisee ñaw bi euh, bi ñu am Sénégal wala ñu am ko ci Afrique amul fenn bañ nañ ko ba ay ñooñu ñëw di ñu copier wala di ñëw di jël suñu xam-xam kon lan moo tax ñu nga xam ne ñoom ñu ngi jóge bitim réew parce que am nañu xaalis ñun amuñu xaalis wala am nañu ñu gëm li ñuy liggéey te ñaw dafa am solo yére dafa am solo. parce que amu ci kenn ci ñun kuy génn même waxuma sax sa sa si buntu kër gi mais sa néeg ak sa toilette te yow soluloo yëre kon da ngay sol pyjama wala nga robe de chambre wala nga kii kon euh, serviette bi ngay kiiyee sax tissu la kon ñaw lu am solo la loo xam ne vraiment euh, dama bëgg ñu jox ko gëddam. voilà et puis on a vu que euh, pays invité d'honneur la Côte d'Ivoire. et pourquoi ce choix. pourquoi Côte d'Ivoire parce que man bi ma ñëwee en 83 bi ma yegsee Dakar. Euh, dañu def benn ba dañu def benn euh, salon euh, foire de Dakar 84. bi ñu defee 84 yi mu amoon ñetti prix yoo xam ne dañ ko jongante prix yëpp man maa ko jëloon d' accord après waa foire de Dakar nekkoon dafa am beneen concours bu am Abidjan Côte d'Ivoire il faut que ñu boole ma ci ci lañ ma yóbboo Côte d'Ivoire ma gagné prix bi aussi. alors bi ñu jógee ci loolu nag boobu ba léegi man Côte d'Ivoire c' est à dire defe naa sama clientèle yi ëpp ànd Côte ak Gabon. léegi nag euh, ñu toog toog tout temps diñ may diñ ma wax du ma ubbi Côte d'Ivoire dara xëcc ma seen bopp bëgg ma ba nga xam ne vraiment ku ci mun a ñëw aussi da ngay wax ne collé collé collé léegi euh, la dernière fois comme ni ma waxee léegi nii ma bëggoon arrêté ñaw bi parce que comme xam nga sama bopp nekkatu ci woon soxlaatuma bëggatuma woon kii sonnoon naa xalaat yi bëri woon na ma ne damay arrêté ñaw di ci la ma ñuy topp sama collègue yi xale yi topp ma ne ma maman doo ko def doo ko def doo ko def ñu pare ci loolu bi ma demee euh, la euh, daaw ñu décembre daaw ñu woo ma ne ma dañ may jox dañ may décorer ma dem Côte d'Ivoire ñu décorer ma yéeyaat ma parce que boobu maa ngi doon nelaw mais bi ma décoré ba ma gis euh, podium bi gis sama modèle yi ni mu neexee nit ñi gis ñëpp waraat ma tu ma dellu siwaat kon ma ne kon Côte d'Ivoire am na fu ma jaar ak ñoom sama commencement ñoom ma njëkk a wane après pour ma dellu soir aussi ñoom ñoo ko def kon. ñëpp bëggoon nañ la gis ñëpp moon nañ la alors dama lay bàyyi nga def coucou à Rakhou et à son équipe vous êtes en direct sur la 2STV. Rakhou maa ngi leen di ziar bu baax merci à bientôt on va se voir. incha allah dégg ngeen merci merci beaucoup euh, mi ngi noonu nag euh, ni ñu leen ko waxee woon. ah la euh, maman Collé Ardo Sow Sira Vision ñoo nekk di préparer seen 40 ans d'existence 1983 ba 2023 c'est pas rien donc 40 ans yoo xamante ni liggéey na ko. Tu m'entends, Koumba Guissé j'ai une question à poser à la maman durant ses 40 ans de carrière lan moo gën a metti ci parcours am loo xam ne ne vraiment lu mu dund la lu ko metti poser question poser question nee na durant sa 40 ans de carrière la moo la ci gën a metti Euh, li ma ci gën a motti ci liggéey bi wala ci ci liggéey bi voilà ci liggéey bi li ma ci gën a metti du metti sax mais euh, sama yaakaar moo tas parce que li ma bëggoon def avant quarante ans yëpp defuma ko mooy que euh, Sénégal gëm mode premièrement deuxièmement ñu am industrie culturelle parce que boo gisee suñu xalaat ak suñu jëf-jëf ak suñu liggéey yëpp dañ koy jël di ko yóbbu ñun dañuy créer ba sonn kenn ñëw jël di ñu créer yóbbu pâtissier yi léegi euh, créer nañ cee créer ba sonn léegi ñeneen ñoo koy jëriñoo ñu ngi koy def euh, euh, industriellement di ko yóbbu di ko jaay te comme kon lu bëri lu ma ci boggoon def en tout cas am na ci am na njëriñ parce que ñu ngi wax ne Sénégal suñu waay colle so ardo duñu wax coalition du Sénégal la ñuy wax turu Sénégal mu ngi ci suñu waxee PANDISE ne coalition Adossi Sénégal la ñuy wax kon ñeneen ñi aussi li ñuy def c'est la même chose créativité bi fi nekk ba pare te xamuñu ko reconnaître luñ ko dañ ko dañ ko dañ ko euh, woyefal loolu laa bëggoon mu mu dañ depuis longtemps ñu mun ko xam naa nag li ma arrêté aussi parce que chaque fois dama doon wax ne chaque sur la vision la même chose loolu wax léegi ni ma yow boobu léegi yaa ngi wax li ngay wax c'est la même chose ko da continuer di ko wax du dëgg loolu moo tax euh, Euh, loolu rek mooy sama sama naxaar mooy que fi ma bëggoon mode bi yegg fi yeggu fa voilà c'est ça. Rakhou c'est bon c'est bon Rakhou. on a bien entendu dégg nañu bu baax li mu wax lu am solo la mais balaa moo koy bàyyi mu dem. est-ce que moom nouvelle génération bi nga xam ne ne moom la ñu am te ñuy def lu muy def est-ce que am na xale boo xam ne ne jël na ko ci métier ci loxoom ci xalaatam ci gis-gisam ak bëgg-bëggam est-ce que am na suite l'avenir de demain d'accord d'accord une autre question nee na ndax tey ñi nga xam ne ñoo nekk ci nouvelle génération ñoo nekk nouvelle génération bi est-ce que am na kenn koo xam ne jël nga ko teg ko sa wet gunge ko ba tey ji mu yegg fi nga xam ne dina fa mën a yeggi ëllëg. Euh, pas gunge euh, ànd ak moom mais conseil cest duma dire du ma leen du du ma gis tout temps mais suñu walee def dara. Euh, danañ ma euh, comme ku ci nekk Mado ku ci mel ne Laxaat ku ci mel ñeneen les jeunes du ma lim parce que dañoo bëri dégg nga suñuy def dara. danañ ma ci boole man maay seen marraine tout le temps lépp lu ñuy def man maay jiitu parce que gis nañ seen bopp ci man gis nañ ne que man mun naa mun naa ànd ak ñoom ci seen liggéey wóolu nañ ma euh, den jege ma jege ma wóolu nañ jege ma euh, loolu euh, lu am solo la parce que ay xale lañ mënoon nañ wax ne mun nañ ñaw ku ci mel laxaat mun na ñi ci des mun nañ mais suy ñëw toujours di ma di gëstu di waxtaan ak man ci seen liggéey c'est parce que cër buñ ma jox la rek mais soxlawuñ ma vraiment vraiment ay jeune nag ñoo xam ne xam formé naa ñu bëri am na ñu ma formé ñu ngi am na ñu ñuy doore ñëw ñu ngi feneen dama leen formé ci ñaw bi am na ñu may formé fi ma nekk nii man damay formé am na ñu ma formé ñu ngi États-Unis ñi ñu ngi Canada ñu ngi kii ñu ngi liggéey formé naa ñu bëri ñoo xam ne vraiment euh, ñu ngi sant yàlla ci liggéey bi je pense que c'est clair Arro c'est bon. c'est très clair merci beaucoup à la maman. sama rêve yëpp nag mooy am école de formation. on sama rêve yëpp mooy am école de formation des métiers de la mode loolu mooy sama rêve léegi man dama ko bëggoon def si daara yi. dem su mel ni Tiwaawoon wala fu mel ni Jurbel fu mel ni feneen moo ubbi fay école nga xam ne borom ñi jàng ci daara bi suñ wàccee danañ jàng métier loolu mooy sama beneen rêve boo xam ne amati naa ko. voilà merci beaucoup maman ñu ngi lay jaajëfal bu baax merci Kumba alors Rakhou euh, c'est la télévision autrement li 2S rek a ko mën. bi lay dëgg la li nga wax lu euh, defal leen direct. Euh, boo xam ne. benn cadreur laa àndal ak caméra caméra. moo joxe loolu yëpp macha allah <laughs> merci beaucoup. Bravo Koumba Gissé. Et puis aussi ça nous fera plaisir hein, d'avoir la maman sur le plateau. Mhm. ndax euh, nekk ak moom fii dañuy jàng te am na expérience. Mhm. et puis je pense que si xale yi war nañ mën a jàng ci moom lu bëree bëri bëri. Mhm. nekk ak mag lu am solo la ci kër. alors en parlant de ça euh, je vais dire bonjour quand même salam aleykum à mon grand frère que j'aime beaucoup que j'adore di El Hadj Bekkay Mbaye. <laughs> balaa ma laa nuyu sa pour boobu nga war a tëgg laa. nu ah. mu tudd Gims. am na am nañu. Ngaaka Blindé. ki ci topp Akhlou Brick. après. wan lirikal. wan lirikal man waaw <laughs> jëm naa wax tur bi mais a. <laughs> wax ko ko. noo ko waxee. wan lirikal. wan lirikal. mais boo ko dee liir nii. waaw du waaw. du ko xam. man lu ma naroon a wax on. ay léegi man li ma noonu wax moo ko wax nga de ñu ngi rey ñun ba ma. Ah. parce que dama génnoon ba ah. ma ñëwee. ñu mi ngi wax événement bi. merci pour ça. Ah, merci normal yow ñoo far. vraiment ku ma yéene la ku ma bëgg fan bu gudd wér. yow Bakary la ma tax ñun suñu émission doo ko wax yow. sama émission la ko wax. naa ko sama émission la mu tudd déglu ma dama lay nettali li may ñëw léegi maa ngi El ci oto may déglu émission bi. El Hadj ni ma mais pourquoi émission bi di daw heure bi ma ne ko non rediffusion la. Mm. mu ne maa ah bon mu ne ko à part guddi la El Hadj yow <laughs> ko non. nga ni par guddi lay daw. ma wax ko El Hadj mu ne ma ah rediffusion émission bi dafa neex. non c'est vrai que dafa bëgg émission bi El Hadj il adore l'émission. Mm-hmm. man wax na ma ko keroog ne ma vraiment vous faites une belle émission. Mm-hmm. dañ koy def guddi mais xam naa dinañ ko rediffuser le soir. Mm-hmm. incha allah nañ waxtaan waa kër gi. merci waaw kontaan. kontaan kontaan ci ni ma fi fekkoon sama jarbaat yu baax yi ci tey dafa mel ni tey dangay ngay football di bëri. waaw gis nga sa sa martiaux. gis nga gis nga sa doom jooju. waa kii. te dama ko xam booba booba est-ce que dugg na équipe nationale sax booba mu ngi football baax baab ah ci Karagan Karak di football Karak ñu naan booy bi mu sopp yooyu mm-hmm. ah temps boobu bu ma mënoon a am tur bu ma koy tudd suuri laa koy tuddee. moom El Hadj Malick Suuri voilà dafa soboon prox prox prox taal caax. non Karak jóg. am équipe bu baax. ay booy si ouest ci foofu nag laa ko xamee. macha allah ba mu dem jaraaf. waaw dem jaraaf. mais man li ma naqari woon moom temps boobu Gia la dendal. waaw pourquoi nga bàyyi Gia dem jaraaf. Ah, ah, ah, question bu baax question bu baax. ci ñëw <laughs> loolu dinañ ci ñëw loolu balaa nga koy moo tax loolu dinañ ko foofu quartier Gia la. non dinañ ci ñëw loolu daal suite parce que dañu marqué une petite pause et puis on revient sur le plateau l'After Plus. <laughs> di leen fàttali encore une fois y a des événements qui arrivent en a Sofia le 16 décembre euh, la fille de euh, Rock Mbala Demba Dia oui, on la fille de dafay non non dafay ah, loolu waaw solo la Sénégal yëpp exactement c'est le 9 ca Parcelles le euh, sama mooy Aye ah, fii ci kër gi ah. le 24 décembre on aura Gims Ngaka Akhlou Brick Wally da ngeen ko bëgg waaw waaw et puis le 6 janvier on aura Omar Pène c'est 40 ans de carrière mhm. fii ci kër gi aussi donc euh, Kane Diallo le 23 décembre exactement Omar Pène moom maa leen di wax bu muy ñëw Grand Dakar bu muy dëkk ak Lapa Baye Diagne Basiro console googu yëpp kër gaak la fa xew lépp maa leen ko mën jeex na léegi nag damaa bëgg am di mignon <laughs> sa caméra ngi nii nga lancé publicité bi Pip Régis s'il te plaît <laughs> Si profesor... Mesdames et messieurs, revoilà la prestigieuse cérémonie de l'African Women Leadership Award, le vous d'affaires des femmes d'Afrique et de la diaspora. Ce sera le samedi 25 novembre 2023 partir de 19h. Un grand rendez-vous pour honorer et les personnalités féminines africaines et de la diaspora qui ont marqué leur trajectoire ces dernières l'aide et la solidarité sociale, le leadership managérial et la performance organisationnelle, sous le thème de l'autonomisation des femmes dans le nouveau système économique agroalimentaire. Cette nuit est entièrement dédiée à son Excellence Monsieur Macky président de la République du Sénégal, pour magnifier ses réalisations au profit des femmes du Sénégal et de la Marème Faye Sall, première dame du Sénégal. Mesdames et messieurs, l'African Women Leadership l'événement phare de la femme africaine et de la diaspora, invite son Excellence Monsieur Macky Sall, en compagnie de son Premier ministre Monsieur Amadou Ba, ainsi que toutes les autorités étatiques, le secteur public et privé, à venir célébrer cette grande nuit de toutes ces femmes leaders et battantes. Événement à ne rater sous aucun prétexte avec de la musique traditionnelle, notamment le khalam de Khadim en première partie et l'orchestre Salsa Star.

Papa Demba Dia dem si yàlla si fan la koy defee stade municipal bu Parcelles Wally Balago Seck ak Warandal ce 9 décembre incha allah Parcelles dama leen namoon gars yi li ma leen waxoon rek il fallait mu ñëwaat donc maa ngi ak suma rak Mignon Dia mu Demba Dia fu sargal suñu baay Demba Dia le 9 décembre ci stade municipal bu Parcelles ak Wally Balago Seck ak Warandal excellent Rahou Prod est de

baaba raar ci gembi gembi daal di raar King Baba borom Ndakaaru laaka gën baaba day bañ Akhlou Brick fa Mbour nan ko alaala mën sa rab gaal seen lay yëngal One Miracle Jonkin Mant hey Kilu Kato waxal waay parce que àdduna yàlla Zo Flam Wide from Paris Savannah Soul Pipana

émission l'after plus loolu nag moo nekkoon événement yu ñëw et puis dama ci yokk dara parce que dañuy dem Paris. le 29 ah. et le 30 décembre. waaw kan mooy dem Paris. Euh, waaw y' a y' a y' a Titi à Paris le 29 décembre. Mm-hmm. Momo Dieng ay décembre le ci loolu. non da ngay dem. non nañ ko wax ci télé bi ñu xam. Ah. da ngay dem ah da ngay mais boo demee da nga ñëwaat doo toog yow ndoor naa la kuy daw. non parce que non doo daw mais dama bëgg nga ñëw bëgguma nga toog kii bàyyi Sénégal di dem fees non du loolu damay bañ. non non c'est pas ça non non non du daw. non non du daw non non non. comme que yaa ma laaj mais c'est pas ça dama bëggoon wax ne comme que dañuy liggéey. waaw dem ñëwaat la. waaw dem ñëwaat la waaw amul dem naan damay seeti sama copain damay dem. Big Taf moom bu mu dem day daw. xëcc benn une semaine yooyu laay bañ. non non non ndox mu si yooyu. le premier on est là. man dafa xam dama foog ay fan si yoo xamante ni. waaw vraiment dañ may sollicité. damay laajte naa ma vient tu viens mais liggéey bi. moo ma bàyyiwul. Hmm. Hmm. léegi comme donc li occasion la. waaw occasion madame seetuwaale leen. waaw ne leen bientôt maa ngi ñëw. d'accord te xam naa ne bis mu ñëwee. très bien euh, nañ ma am nga Schengen ba pare. nañ ma kii nañ ma nañ ma teeroo ak. léegi dañuy bàyyi bu ñu bu ñu invité Titi ak Momo Dieng Aïda ça dépend sa comportement ak ñoom. Mm-hmm. surtout bañ. non ma dem du du man xam man xam naa ne du ma dem. du benn du benn. moom moo jéem moom su jaay mais titi sax mun naa ko raay. ah moom la def léegi. neex ma waaw léegi. Ah. léegi dañ dem seeti Doucouré mu ngi HLM. marché mm. HLM ñu dem xool Doucouré waaw. ankay du ma ni du fi eh da da da da da da kin da da kin taskin taskin taskin taskin talhin talhin talhin daxi saxin besar saxin mbate tabala bala bala bala basar saxin ragil mate pasal xin rasaxis talalala bus waa dama ni salaamaaleykum waa after plus mais gars yi yéen a koy def ba mu nooy raxu. waaw. maa ngi leen di ziar yéen ñëpp. ñu di wax ni comme comme man moom damaa dañ kumpa. te xam naa ni li xew Sénégal yëpp maa ko dara wane waaye li may dégg fii ci wetu asalem. waaw. yoon bi jëm yoonu Masaalikul Jinaan man Doucouré maa ngi koy wan. maa ngi nuyu ñu nekk ci plateau bi per Bekaay daa dem. ñu ngi lay dégg. yow rek laay dégg. barke unité bi. Ah. yàlla sa jaamu yàgg. léegi dañuy doxantu nag dugg foo xam ni dama dégg ñu naan tisi yi naan borode autorise yi kuy xew ma ne lii comme que coow li bari na foog ma gëstu ko ndax olof Njaay nee na ñàkk xam te gëstu woo loraange lay indi ci way umpale bi te bëgg maa werante loo xam ne bu ëllëgee daf ma jural gàcce yox la jëli ko yox la jëli ko asalaamaaleykum centre commercial xam nga centre commercial foog mu am étage ñu mën koo xool jege si ma tuuti ma xool ba xam nga centre commercial du noonu ko créé doo xëy rek na dama am ka centre commercial te gëstuwuñ ko ah waaw waaw jëlal jëlal ñaaw laa ilaaha illallaah waaw est-ce que xam nga benn affaire sénégalais daa bëgg preuve te bu nee preuve ñun dañoo mën a werante dama dégg tissu yu baax yi ku solo mu sañse mu baax kër mati la ku xew le xew mu baax ñu solal la kër mati la ma ñëw di gëstu pour nga wan ma xool ba xam parce que man ci ti ci laa yoroo lu ma am tisee ma ko may nu dem yox la jëli ko waaw boo ñëwee am na tout façon tissu yi ne yow bëgg rek am na fi dañuy jaay sañsee pour ñi di xew mhm. yebbi yi en gros lañ ñu revendeurs yi nag ñoom nañ ñëw seen bitig a ngi nii fi mooy xéewal bi lépp am na fi. ah ok revendeurs yi mën nañu ñëw fi di jaayaat. baax a baax parce que ñun en gros lañ loo soxla am na fi te doo sonn boo leen ñëwee dañ leen defal prix abordable prix yu xéewale lañ lay defal soo ma toppee ma wan la loo mës a gis. tey bu nekkee bëggoo réer nag nooy def. nu ñu bu ma réer si biir ndax fii moom xam naa ne yaatu na yaatu goo xam ni ci kàttanu yàlla ak mbaaxam boo yéexee tuut da ngay réer. defatuñ popeline. Mhm. nii dara coton suisse ngay def mu nooy nepp sa yaram. nga nga dublu def lu la neex te doo sonn. yox la jëli ko amul taxaw foofu du aree. am na million yaa ngi seetaan. ay tissu góor yi yu nooy nepp rafet mhm. anglais yi am na loo bëgg am na. brodé nag ñoo ci mën ñoo ci teg tànk. ok bi ti lii góor mën na koo sol. <laughs> baax na. ñëwal. brodé yii nii li cotonnade la. coton cotonnade. am na nit si. tornade am na ci tissu loo soxla ci tissu boo ñëwee da nga ko fi fekk. ñii di def hôtesse suñu maman yi di yebbi. ah kon bu di autorise bi may dégg nii la mel. nii la mel lii yëpp ay autorise la mën nga xool lépp boo gis boo loo gis rek loo gis rek mu rafet rek xamal ni ñoo koy jaay loo gis rek mu rafet xamal ni Kër Matar. kon su ma juumul lii qualité bu baax bee nekk nii. bu baax kon ka yow ki nekk ki ne sama koñ may bëgg a rey. li ngay gis coton naat la grande dame la ñun kese ñoo ko am lu bees tàq lu ñu wàcc. léegi dañuy tëb ay étage ñëwal kaay topp ma yox la jëli ko kaay kaay xam nga Sénégal loo gis lu ne maa mën maa mën maa koy jaay bu ne bu ñu yeggee si looy jaay ba nu war a wane say bagage ngay na bëttu man du kuré maa lay loqati preuve laa bëgg te preuve à l'appui la lonkil ma loolu ñëwal armo min ah ti si xewee nekk nii. yomb rafet cherut. Mhm. lu waay am boo ñëwee kër mat di nga sañse lu waay. xam nga man bëgguma say kàddu yow kese dama fee gis benn cliente ah. soxna si boo ma mayoon benn deux secondes mhm. bu dee dérangé wu la nga baal ma on dirait que tey fii nga ñëw lan moo tax nga taamu fi yow. waa kër mat yi depuis ñu ubbi HLM fii ci kaw tali bi. Mhm. Euh, ma gis accessibilité bi neex. soo ñëwee macha allah pour yéeg ci kaw ak yëpp ascenseur la. Mhm. ba pare qualité man surtout qualité bi ñuy jaay. Mhm. ba pare prix yi abordable xam nga jamono ji léegi qualité gis qualité ba pare prix yi abordable. Mhm. dafa jafe. baax na te ñaar yëpp la boole. man des fois am na ñoo xam ne ñu ngi Europe ak yëpp dañu am confiance ci man. seeni si sañse dina raar. soo ko solee presque yow kese yaa koy sol fi nga jëm. deuxièmement qualité bi dina baax. troisièmement prix bi dina abordable. mais mais mais comme comme que ñi nga xam ne dañuy jënd yow di jaayaat yow di nga jënd fii di jaayaat te te da nga ciy waaw ñoom xàmmee nañ ma ci jënd jaayaat par bal jaayaat en jënd en jaayaat am ñoo xam ne sax dañuy bëgg a débuter ak benn somme bu ndaw. Mhm. am confiance ci man ma indi leen fii Kër Mati. ñëw du ñu mas a am regret à chaque fois ñu ngi ñëwaat sans ma yëg leen sax man dañuy ñëw jënd jaayaat te ñu ngi ciy gis seen bopp bu baax. duma la téye bàyyi la nga yegg yeggali sa tànn yaa booy fu ñu jëm. nañ dem maa yëpp brodé ah yii mooy euh, tissu xew yi. brodé yu rafet yu baax rafet yi. tissu xew yaa ngi noonu. brodé waa raxu. maa ngi lay dégg. gis nga maa ko mën ak maa koy jaay bu yorante ndara am na yónil du kuré. dëgg la si yu rafet yaa ngi nii. jaay rek am place yi pil yu nooy nepp ñun du ñu jaay loo xam ne dafa dëgër. wala hmm. nga koy sol mu lay sonal. Mm. loolu bu naree am boo ñëwee ñu delloo la sa xaalis. da ngeen di delloo xaalis. barke borode yu rafet la ñuy jaay parce que li ñuy jaay dañ koo wóolu. c'est que xam nga lu ma neex ci borode yi tur bi nu mu tudd maanaam pirxa di ngeen baat bi <laughs> pirxa <laughs> borode pirxa yaa ngi nii. xam nga jeeg ji dañuy dañuy dañuy jongante ci wàllu solu te booy solu na nga sol lu baax loo xam ne boo toogee kenn du la wokkanteel foo jëm ak man. <laughs> baax na da nga joxe sa xaalis rek waa léegi tey bu bëggoon ku buggoon a ñëw ci bërëb bii bëggoo jaawale. Mhm. arnaqueur kër dañoo bari mën nañ jékki-jékki créer tuddee kër Mati. dañ lay jox boobaa suñu numéro de téléphone. jox ma numéro bi man maa ko yóbbaale. 77. 77. 669. 39 68 wala nga jël 77 145. 43 43 loolu yëpp suñu commercial la ko. dama bëgg nga bamtuwaat ko benn par benn pooko per pooko. 77 ngay jël 569. 569. defal 30 def 68. def 68. defaat 77. defaat 77. 145. 145. 43 43. 43 43. soo wootee ñu jot la foo bëgg ñu livrer ñu livrer la. ñu ngi HLM. ñu ngi HLM. ci yoon bi ñëm ci. Masaalikul Jinaan bi. boo paree da nga julli ji. waaw déggal loolu yox la jëli ko. léegi sama gars yi xam nga plateau bi ngi nekk nii lépp lu waay di bëgg wane nga bëgg nit ñi gis ko boo ñëwul after plus du kenn du ko gis maa ngi nuyu tamit sama DG euh, Amdi Mignon di nuyu Khadija di nuyu mafia bi ñoom ñoom ñoom euh, euh, Big Taf xam nga Big Taf xam naa li ma la wax ak lu ma la waxut baa ma noppi raxu waaw maa ngi lay dégg loo bëgg foofu neex na de foofu neex na de. tur yi ma fa dégg yëpp loolu yëg loolu laa yëg. ay ay xaw ma ay piix xaw ma ay ay xaw ma lan ak daal mais foofu daal neex na ma man. maanaam ba ma déggee brodé piix. foofu daal neex na ma man. dégg lool loolu piix. foofu daal su ma àndoon ak Sofia Khadija Fatima. waaw xool dina glacé de. waaw waxal waxal maman mu solo ñu benn émission. ah maman Mati mi ngi lay dégg. waaw euh, nañu solal. foofu daal neex na maman Mati mi ngi lay dégg nee na boo yore lay xaar boo ñëwee mu solal la ba mu ba mu jekk. jeex na tàkk. waaw ah. très <laughs> mi ngi noonu nag numéro téléphone yi da nga koy bamtuwaat pour ñëpp xam ni. 77 la. tissu yi ñun ñoo ko fi yor te képp koy wër feneen fu dul fii jàppal ni arnaque la da ngay def 77 569 39 68 wala nga def 77 145 43 43. bu ko defee PBK yi ñu ngi lay béggee bu baax di siyaar eh, di leen ñaanal jàmm di leen wax ni fii lay xewee xale yaa ngi nii tisi yaa ngi nii xam nga ni lii lii la lii la tubaab naan désordre ordonné da ngay gis tisi bu la neex tànn fii boo fi ñuy ana fa jabar boo yéexee tuuti da ngay am embarras de soi aadama waa dé déggal loolu yaa saraxal loolu double largeur yu rafet la aadama di baax yu rafet yu amul fenn nooy nepp qualité bu baax double largeur autriche bi nañ koy suivre ci live bi. na waaw. gars yi mi ngi noonu bu jeexee jeex na bu jeexee jeex na bu neexee neex na kon dama bëgg a wax ni comme que ñun fii lay xewee da na tàmm gaam ci man Père Bécaye yaa moom lii taas mbataas taas kii sa gën taj ke ke ke sati si kii sa kenn nga jënd kii sa kenn nga sol kii sa du la dikkee daara kii sa kenn fu muy xewee. Kër Mati bu géey eh, fu muy xewee Kër Mati bu seerul kaay moo fu muy xewee nga sol lu baax moo fu muy xewee kenn du la nax moo fu muy xewee nga ne ma taas mbax wootal sa xitat Kër Mati. merci beaucoup Doucouré merci beaucoup. jaajëf kooku mooy foofu ca marché HLM di suñu rubrique wax ma loo bëgg a jaay. loo bëgg mu dox. loo bëgg ñu gis fii lay xewee Aftar Plus. je vous donne le numéro mooy 70 935 45 43 70 935 45 43 pour toutes vos annonces commerciales dans l'émission l'Aftar Plus loo bëgg a jaay wooteel ci numéro boobu. bu ko defee ñu daal di koy àdduna gis ko. di gërëm Kër Mati seen numéro téléphone mooy 77 145 43 43 77 569 gars yi kenn comprendre wul ñu ngi ah. naan dafa mer rek am na lu ko frustré euh, presque jeexal na pourquoi lii yëpp personne n'a compris on va regarder un élément du président puis on revient sur le plateau on est encore là le football le Sénégal a fait match nul ça vient de finir on va en parler la preuve Henri est là pour décortiquer un peu ak Fatima la lutte actualité ce week-end Siteu ak kan. raxu Siteu Lac de Guiers. raxu te baal ma donc ma ne yàlla bu la yàlla dog waaye bu war a sax di wax ma lay dog waaye Bécaye damaa dégg léegi nii mu wax ci benn benn kàddu. affaire bi perturbé trop trop trop. dafa ne bi ngay wax waxu politique bi. dafa ne Macky dafa nuyu Amadou kii premier ministre Amadou Ba euh, da ko sewal quoi. da ko doon Bécaye si wax naa fi lu mel noonu. si Bécaye non non non non la. Ah, ah, ah, loolu mu leeroo ko léegi xam nu ñu def. xaaral yàlla bu la yàlla dokk. <laughs> waaw kay revient on en parle. lu nekk dafa am équilibre mais ñëpp def la même chose après fu ñu jëlee liggéey. après on va waaye liggéey amu fii dañu dem ci gaal et cetera alors que réew mi liggéey ma ngi fii wax li ñu li ñu leen sant wax li ñuy def fekk yow li ngay def sax mënoo ko expliquer nit ñi mais comment veux-tu que di di xam loo looy liggéey parce que loo def te nit ñi xamuñ ko ak loo deful ñoo yem c'est comme si tu n'as rien fait tu fais personne n'est au courant tu expliquer loolu nag moom ci ñàkk fayda la bokk waxtaan ak masla ku ne xam na ne ma nitu jàmm la mais nag am na loo xam ne duma ko nangul doomu aadama duma ko nangul kenn kenn kenn faut accepter qu'on nous marche sur les pieds comme ça qu'on veuille euh, ce pays-là le mettre sens dessus sens dessous au nom de quoi s'il pense que moi en tout cas je vais capituler devant des forces intérieures ou extérieures c'est qu'ils n'ont rien compris bien Moi, j'ai renoncé au pouvoir, mais je n'accepterai jamais, je l'ai dit, jusqu'au jour où je remettrai, je n'accepterai, je n'accepterai jamais le chaos au Sénégal. Et radio, télé, télé, chaque jour, radio, télé, mensonge, Internet. C'est comme ça qu'on va développer le pays. C'est comme ça qu'on va donner l'emploi aux jeunes. Ils sont là, le chaos, avec des complicités. Mais filles, ça ne se passera pas ici au Sénégal. Le nec de voilà lu nekk dafa am équilibre na ñëpp def ñëpp def. boo dégloo lii. kontaan ci kontaan ci. Mm. daf ko yeex a def. Mm. gars yi dañu tàmm politique. bu nu faloo. Mm-hmm. dañuy xalaat ay deuxième mandat ay troisième mandat bu ma melee nii duñ ma voteel mais caractère bii. Mm. Macky sàll keroog bi ñu ko falee. mu doon président de la république. ci caractère bii la waroon a ne. mais duñ ko def. day xaar bay waaj dem. door koo wax. mais nii la musa mel moo woon boppam la wone nii la mel mais diplomatie bi mu doxale ci yenn yi jaru ko gis nga boo dee gouverner boo waree am deuxième mandat da ngay am deuxième mandat boo ko warta am yàlla mooy fale duñ la fal mais boo ñëwee mais Abdou Diouf dafa amoon caractère mm-hmm. mais nit ñi dañ ko doon voté illaa a fait vingt ans ici mais donc ku nu fal nga doon président nii Macky def daf koo yeex de mon point de vue sa xalaat la da ko yéex a def nii la waroon a mel waru woon a toog bay waaj a dem door nee mel man c'est mon point de vue lii da di yoon un président dafay wax day joxe gëdd un président day wax xalaatam wax dëgg bi mais yaakaar nga ne mu ne du bàyyi Sénégal ñu jaxase ko tout ça waroon na ko wax bu yàgg est-ce que c'est dem na ba ni bu problème amee sax damay wiir et puis Macky Sall li muy wax ay gaam lay waxala ah. bu bu réew mi ñàngee damay wéet mooy bu réew mi ñoo ñu ko wër ñëpp di tàccu dañuy daw hmm. c'est pas sérieux mag Macky Sall trouble yi am ci dëkk bi daawul gis kenn am na ministre yoo xam ne dañ daan làqatu seen kër ñii dañuy dem seen dëkk daf fi am il a compris moo tax mu wax ko yii muy wax ni ay nitam lay wax waruñu seetaat ah moom laa lay wax moom laa la daf ko waroon a wax bu yàgg nii laa bëggee woon mu meloon ne nii la waroon a mel ca début bi mu yoree réew mi ñu wax xalaatam parce que li mu wax dëgg la réew mi duñ ko bàyyi mu yàqu ah du dëgg réew mi waroon na koo caxas-caxasee du dëgg mais da koo yeex a wax alors suñu journaliste bi nga xam ne mooy Ablaye Mal moom mën nañu gën a jox plus d'éléments Ablaye Mal waaw bon juste pour fàttali rek euh, li président mu ngi ko waxee Kaffrine parce que mu ngi démarrer déjà tournée bi le 13 novembre bi weesu Euh, muy tournée économique boo xam ne démarré na ko jeexal na ko d'ailleurs ñëwaat na ba voyager euh, di wax ne rek bon je pense que président mu ngi ci logique boo xam ne du du du fii rek ah parce que même tey sax presse bi génne nañu li nga xam ne moom la wax Jeune Afrique nee na amul benn regret bu mu yoree nguur gi ba tey mais man en fait comme euh, Père Becaye nu mu ko waxee c'est son point de vue on le respecte man déjà président si tournée économique bii nii dama ko xameewul dama ko xameewul parce que j'ai président boo xam ne benn colère bu mu dégagé pour la première fois mais pour certains c'est c'est juste une fin de mandat président di comportow nii c'est vrai c'est pas la première fois qu'on voit un président buy jeexal mandat mu demee nii mais pour euh, cas Macky Sall c'est différent Macky Sall c'est pas quelqu'un koo xam ne wax naa ko la dernière fois kuy génn di tontu c'est pas boo xam ne nit ñi dañuy wax dëkk bi même mu doon tàkk doo gis Macky Sall di génn mais tournée économique bi colère bi dégagé moo jaaxal ñu bëri en plus lu ci gën a doy mooy que aujourd'hui Sénégal n'a pas besoin de cette colère là malheureusement euh, suñu ay njiit des fois su ñu réew dafay toll foo xam ne dañ leen di gën a soxla pour réew mi ñu rog réconcilier en fait les Sénégalais parce que on naa a besoin réew mi am na lu mu dund fii nii ci événement yi weesu ak fu ñu toll nii ak ñi nga xam ne ay politique lañ ñoo ngi ci prison yi je pense que aujourd'hui lu ñu war a mën a gën a tenir ci discours dafa war a nekk discours boo xam ne dafay dajale mais ça c'est la vraie personne qui différent pour man qui est différente aujourd'hui pour man du président Macky Sall pour man voilà la vraie personne okay. c'est pas le président de la République ah, qui a parlé aujourd'hui ah. mais ça c'est Macky Sall c'est l'humain mm -hmm. okay. c'est l'humain parle avec ses militants est-ce que war na mer wala bi ku nekk am nga si sa gis-gis man sama gis-gis mooy que en fait Sénégal fu mu toll colère bi président di dégagé on n'a pas besoin de cette de cette. tu pensais que il parlait à l'interne, dañ ko filmer ou quoi. parce que li muy wax ni comme li Bakay wax. ça c'est wax ne dafay wax ak ay nitam. waaw mais tournée économique la en ah. une tournée économique boo koy def. Hmm. adduna yëpp moo moo lay suivre en ah. donc li ngay def ñëpp dañ koy wone. Ah. en plus pour man dama gis ne un président boo xam ne lu muy dem. Hmm. maanaam mandaam lu muy jeex daf ko neexul. Hmm. parce que on a vu yaa ko wax avec avec Diouf. avec Wade également je peux parler de Wade parce que j'ai vécu ça à Podor là on a vu Wade est des jeunes ñu yore suñu ay brassards rouges quand il est venu. Euh, on était là maire ñu on voulait ko mu génn dëkk bi mais il voulait parler avec nous mais on voulait pas l'écouter mais bu mu demee ba Richard Toll dafa daf ñu en fait benn instant comme ku ñu xaw a mere xaw a mhm. saaga sax à la mhm. limite mhm. et on a du du fi amati dara c'est comme ça que war des partis aujourd'hui quand on voit Macky aujourd'hui cette colère on dirait que peut-être que demam demam bi daf ko neexul à la limite man c'est mon point de vue damay wax ne comme demam bi daf ko neexul aujourd'hui je ne peux pas Sénégal ñuy waajal élection mhm. au Sénégal on a un opposant par exemple ki waroon mhm. bokk ci élection bokkul mu ngi en prison au Sénégal par exemple aujourd'hui au PASTEF euh, ex bon parti dissous qui dit que aujourd'hui Diomaye fay mooy seen mooy seen candidat Diomaye Faye boobu mu ngi mu ngi mu ngi prison aujourd'hui Sénégal où on a vécu avec l'immigration les jeunes sont en train de partir un mm -hmm. président de la République qui parle que aujourd'hui euh, njàng mi baaxul pendant douze ans nga nekk au pouvoir j'ai vraiment moi je comprends pas mon pays c'est ça en fait à la limite quand je vois un président parler comme ça, cette colère, en tant que jeune, je, je n'arrive pas à comprendre. Je me dis qu'en fait, il est temps de nous réconcilier, Monsieur le Président. Il est temps de parler avec les Sénégalais. Il est temps, en fait, pour moi, Boydiakhal Manda, c'est le moment de parler avec Fatima, avec Mal, avec quiconque, pour dire que Kalen nous bolons pour le Sénégal, pour au moins am l'offre pour Bofi C'est ça, en fait, le Sénégal. Malheureusement, aujourd'hui, aujourd'hui non non non non d'accord d'accord je termine rek ak le président il a fait beaucoup de choses le président il a fait beaucoup de <laughs> choses il faut que l'acte fait non il faut que la accepter. non parce que la façon dont tu as parlé là comme ça là non vraiment vraiment vraiment vraiment. Ah, je suis pas en d'accord de ça. je suis d'accord avec ouais. toi mais parce que. c'est mon point de vue. Ouais, mais ton point de vue c'est pas bon. Eh, eh, eh, le point de vue c'est pas bon c'est pas bon. le point de vue c'est pas bon. tu développes mal man lan laay wax. tu développes mal. <laughs> xam nga man lan laa lii mooy lii mooy parce que parce que non non. il faut que xamal ko ni il développe mal li muy wax baax na de. li muy wax lu baax la lu am solo li nga wax moo baaxul. non ñun ñëpp li muy wax baax. ah bu la wax baax. Ah, ah léegi bu paree après ma jox la kàddu. li muy wax baax déglu ko mais man. vas ma bëgg mu ne bu demee ba ni yi xuj may xuj xame ah, tali yi yàqu woon na léegi lépp defaru na lamp yi xuj xame léegi defaru na moo gën. mais waxul ak ñeneen ñan lay waxal. Mhm. son gouvernement. Mhm. ses partisans lay waxal mhm. yow waxul ak yow. waxul ak man. ah non wax boobu ñun moo mënu ko. ñi ko moom mooy ñi mu àndal di liggéey ñu defar tali defar courant. defar yu bari. te kenn gisu ko. ñooñu kay waxu la ñun moom moom ay gaam lay waxal. waaw d'accord mais si ñu yor communication. Mm-hmm. Mm-hmm. ak ñay liggéey te duñ ko wax. Mm-hmm. mais mais per Bégaye xam nga oh, man pour ah? mais xam nga discours bi dafa am lu mu ci wax. maanaam Sénégal même tey suñu ay université wala suñu ay école du ñu jàngale suñu langue nationale quand j'entends au président parler. Ah, en fait c'est-à-dire non c'est non non attends il est 12 ans la ñu nekk au pouvoir. ah, ah xam nga tamit pouvoir dafa neex. amul ndax xam ngeen da mooy pouvoir. waaw bien sûr. aujourd'hui dans quelques mois le président Macky Sall dootul am lu muy am nii. dérapli du lu muy am lii yëpp dootu ko amati. Ah. il va devenir un simple citoyen. Ouais. aujourd'hui avec tout ce qu'il a dans quelques mois il va partir. pour moi aussi il a il a aujourd'hui abandonné en disant que du def troisième mandat mais man en tant que jàngat si li ma li ma gis mooy que président bi ma gis. mooy que dem bi muy dem ak Amadou Ba bi mu dem muy muy teg instant bi malgré lui da koy teg mais c'est parce que troisième mandat boobu noonu dafay wone rek daf ko bëggoon def man d'accord naa ci li nga wax ah li nga wax nii man d'accord naa ci man d'accord naa ci li nga wax de parce que mais da ngay comprendre ni bu nee déglu ma bu baax li ma la wax ba ma mhm. bu nee defar nanu waaye kenn yóbbu ko mhm. kenn waxu ko mais waxu la mais la faute à mais moom bu ñu bu ñu communication ñoom am nañu ñaata am nañu télé am rajo am mhm. journal am nañu lépp. même ci rajo privé yi ñoom am nañ ci ci télé privé yi ñoom am nañ ci. Mhm. mais bu demee ba ay jëfam feeñul. Mhm. mais waxul ak ñun. ñoom lay waxal même dans son discours. mais man de man lay dégg waxul ak ñun. non Père Bécaye non ñun lay waxal en fait. je suis ah. je suis désolé. mais c'est ñun ñun lay waxal. kii non non c'est son droit. man d'accord naa ci ni muy def parce que président waxu ko palais. président waxu ko ci hôtel président dafa dem tournée économique depuis le 3 13 euh, novembre. Mhm. muy def tournée économique. mu bàyyi fa ay milliards mooy milliards yooyu ñu doon wax temps yi passé. Mhm. milliards yooyu muy bàyyi tey kon président. tey la soo ko xam ne milliards wala promesse la. non ce sont des promesses des promesses la veut dire que daf ko fay bàyyi parce que loolu lu mu fa bàyyi ce sont des milliards. comme ça lu mu wax nii. yu nu bàyyi ko foofu voilà promesse boobu muy def. est-ce que daawuñu def beneen conseil des ministres. ba pare te lam fa waxoon ko ce que tu de dire là quand tu dis que waxeewu ko euh, palais mm-hmm. waxeewu ko feneen maanaam tu veux dire que waxtaan defu ko waxtaanu biir néeg. non non waaw léegi kon daf ko indi ci penc bi daf indi ci penc d'accord léegi nag foofu noonu sax bien vrai que daf ko indi ci penc bi man je trouve que ni ko mm-hmm. indee ci penc bi noonu mu nekk ci porte de sortie bi di génn dafa bëgg leeral sénégalais yi leeral askan wi man ci li jàngat ne que li ma waroon def man def naa ko ñii ñoo ko waroon yeggali wala ñii ñoo waroon def lii ñii ñoo deful seen liggéey man je pense que ñooñu lay waxal ba pare xamal sénégalais ne la wax am na leneen lu mu wax euh, temps est mm-hmm. passé am na ay cadre Casamance je pense que euh, ñoom Atepa génnee ko mm-hmm. génne benn mu lu mu waxee balaal opposant am ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko mu mm-hmm. nii si lu ñuy dund su quand je parle de l'immigration quand je parle dëkk bi nu mu mel xel métti quand je parle aujourd'hui li nga xam ne dafa ko koy waaj a jeexal muy mandaam ah. Sénégal tey jii ni man bugguma gis président buy mer président bi ma bëgg a gis mooy président boo xam ne même su ma gisee man ma mer daf may woo mu ne ma kaay parce que damay dem sa réew réew mi yaa ko moom kaay leen ñu xool nuñ ko defaree su amee lu muy def parce que il a dit en direct benn benn ministre am benn ministre am lu mu wax Abdou Karim Fofana euh, ci ci ci conseil ci euh, conseil présidentiel nee na kii day wax ba pare mais à kenn comprendre lu muy wax ministre am ministre am comment un président peut dire ça à son ministre. mais wax voilà xam nga ma mooy li ma lay wax. xam nga Ablaye Fofana du ñun. Karim Fofana. du yow du man. waaw du kenn ak un c'est un ministre. mu ne ko da ngay wax ba pare te ñu duñ ko comprendre. moom moom moom mu téye fi mu ba pare mu téye ko fi ñaata weer. ñaata at mu ba ko fi. li nga wax it d'accord naa ci de li nga wax ni peut-être dafa xaar bay dem. doo ko naqar looloo ma naqari man. waaw loolu la. déggoo ma de yow man ak yow looloo ma naqari li ma naqari mooy nii la waroon sax si commencé. waaw mhm. voilà. di wax et li mu wax. ku soxor la. ku bu baaxee. ñun bu baaxee modéré langage am di wax ak ñun. ngeen ne waaw nii la waroon a commencé nee la commencé réew mi daal boo bëggee daal. mais loolu àdduna waaw boo bëggee dëgg-dëgg daal réew mi lépp nga daal waaw déglu rek Bécaye je moi je je prends. léegi nañ ko dégg j'enlève mes casquettes je tourne de dos je te regarde bien. en face en face les yeux dans les yeux. les yeux dans tes yeux. gis nga père. wayli wayli wayli wayli wayli. waaw Macky Sall liggéey na. est-ce que xaaral rek waaw loolu débat bi de xaaral rek dama lay wax man lu tax ma ma sukkandiku ci moom. mais lu muy mer kuy contre kuy contre moom moom laay moom laay gën a contre. moom contre di am mais moom laay gën a contre waaye bu ma toogee ak sama xel. ascen euh, ascenseur ko. rejoindre waat sama bopp redémarrer waat sama bopp xool jour bi Macky Sall la jël pouvoir xoolaat réew mi fu mu toll actuellement fi may wax ak yow nii ah non waa ji gàcce ngalaam. liggéey loolu tam d' accord naa ci. gàcce ngalaam ma yëgal la waaw maa gën a démocrate ci àddina. waaw li ngay wax du débat bi. waaw Macky Sall ak. travail ah, loolu am na li parce que Macky sàll bu mi ngi dem bàyyi bana fi lu fi amul woon. waaw ci lu baax. waaw lu baax. waaw loolu moom léegi nag te mu ngi dem. bàyyi fi ay milliards këpp fi ay milliards lu jeex. man <laughs> na milliards yi. dama ko waa déglu rek président kilifa Macky Sall du waxantu lu mu mës a wax teggin seen bët. lu mu mës a wax teggin seen bët. lu mu mus a wax rek fii la ñu dig euh, train train bi. teggin ñu ne mënul nekk. ñu ne mënul nekk am politiciens yi taxaw ne bu bis bu bi dawee man ma sant nangam jour boobu ñett fan lañ teg ñu inauguré ko. Mhm. Mhm. am na fi. am na looy wax yooyu. ok lu mu ñu mës a wax teg nañ ci bët bu ne jox la jox la Kédougou milliard jàppal dinañ jox milliard waxal waxal waxal ndax milliard dina àgg. si waa Kédougou non am di mooy problème mooy lan lay lu tax. cette colère du président. waaw moom mer parce que parce que c'est une personne mais laaj ma dox mi mer laaj ma dox mi mer. muy mer parce que journaliste yi mel ni yéen. yéen a koy jàpp di koy ruux. di poser ay questions yoo xamante ni da koy perturber bu ñu béy di jàmbur bu ñu liggéey dina melutuñ. il est en tête de dingue. <laughs> waaw dafa seere dafa muñ Macky Sall mu bàyyi mu mu mu jàll dafa ëpp trop. am man li ma bëggoon Macky Sall comporté woo. Macky la ngi dem. transport bi yéen a bu xoolee ci li fi bàyyi ci wàllu transport gis ko. waaw bu ñu fi xoolee ñoom aar gis nañ seen bopp ci. stade bu mu leen defaral. waaw ñun ñi yëngu ci làmb ji gis nañu arène bu mu nu defaral. waaw tukki gis nañu ci tali bi lu mu fi def. waaw lépp matul un président mënoo fa. mënoo matal lépp mais léegi ngàcce ngàllaama laa bëgg di dégg. waaw loolu dafa war a waaw ngàcce ngàllaama boobu nag laa bëgg toog si plateau bi am eh, na question bi kiy posé du li ngay wax. mais loolu la loolu la. kii wax yow li nga waxee am nga ci droit rappelé. waaw yu baax yi mu def. man yu baax laay xool man dama xool nit lu bon ma koy wax non xam nga man nit lu baax la naan am di non pour man en fait c'est pas ses réalisations man loolu du ma ñëwaat. ci ah, réalisation il faut quand même ak. non non non non non d'accord léegi. Eh, léegi léegi ce qu'on va faire. nous allons boucler ah cette partie là. parce que on n'a pas assez de temps. Puis on doit parler le football. Sénégal a fait match nul contre le Togo. loolu laa bëggoon Fatima ñu ñëw ci. Mhm. Sénégal moom la ñu waxoon léegi sànq ci antenne bi maa ngi ko doon wax Henri. Mhm. moom il se souvenait tout à l'heure de 2006 bu Togo doon leen éliminé mu raté woon penalty bi mu ngi koy wax sànq. Mhm. mais tey ji ñu gisaat aussi Sénégal beneen xar kanam. je vais parler surtout ci classement bi parce que chaque jour dañuy gis ne Aliou. lu mu defoon Cameroun moom la indiwaat parce que Aliou fu ñu koy xaaree chaque jour dafa ñëw match bi yow ban lecture nga ci def yow donte seetaanoo ko mais suñu waxee Togo Sénégal toujours dañu naan match bu métti lay doon toujours Togo rarement lay lay perdre à domicile lu waral loolu. non comme li ma wax rek sànq euh, Togo dafa nekk équipe boo xamante ne biir dëkkam pour nga gagné ko dafa métti. naqari footballeur. ñun suñu jamono ñoo leen mënoon foofu du benn sax ñu gagné trois point xaw ma dëna la mujjee seen dëkk hmm. donc comme avant match bi wax naa la ko du du équipe boo xamante ne Sénégal day ñëw jaar comme c'est Sénégal moo ko moo ko mën sur les papiers Sénégal du moromu Togo munoo gis benn joueur du Togo boo xamante ne da koy dégg nga ne ah kii léegi bon kii mun na jaar sax def dara kii mais amul boo xamante ne xam nga ko kan nga xam. Aliou Bayor. ah non boo <laughs> bàyyi na ko seen temps donc Togo équipe la boo xamante ne bu defee match nul ak Sénégal tamit bettu mais score bi waaw loolu laa bëggoon la score bi zéro a mën mais bettu ma. pourquoi man xamoon naa ni match bu difficile la. mënuñu woon gagné foofu. non. mënoon nañu gagné mais. sur les papiers da nga ne Sénégal mën na ko dóor 5. ñu gis ne sa xolal manque dañuy wax léegi léegi Togo yi Togo mënoon na defar score bu bëri parce que seetaanuñu match bi certes on était sur le plateau. Mhm. mais ils ont eu beaucoup d'occasions yoo xam ne concrétisé wu ñu bu ñu doon mhm. a mhm. euh, na lan yow ban lecture ngay def ci loolu Edouard Mendy c'est grand wax naa ko léegi léegi. xam nga leen dafa am si football. si football waaw haut et euh, gis nga am na yenn yenn niveau yi boo si da ngay xaar lu ne mën na la dal Edu tey moo ñu génnee si match bi ñun daf ñu doon arriver suñu temps ak Tony am na ay match yoo xamante ne Tony moo ñu si doon génnee comme euh, Sénégal Gambie bu ñuy dem biir Gambie Gambie yi xaw nañ ñu rey mais Tony moo ñu si génnee tey noonu la demee dafa am match yoo xam ne góol yi ñoo ko moom te tey chapeau à Euh, défense bi euh, défense bi loolu ñuy wax Koulibaly aussi daa fi engrais ñu ñëw ci pôle Sénégal bi. Mhm. on a RD Congo Sénégal certes même si les premiers moo nekk premier fi mu toll nii parce que Soudan dafa encaissé Soudan encaissé na 4 bi Sénégal Soudan RD Congo euh, Mauritanie. Mhm. Euh, Sénégal Sénégal devant tey jii les chances du Sénégal pour le reste parce que man lu ma gën a jàpp ci éliminatoire coupe du monde bi nag mooy dafa gudd. Mhm. cette jeune ñiy football nii genn wàll gi yëpp sax duñu du ñu eggali euh, éliminatoire yi day fekk ñu bàyyi parce que éliminatoire yi day dem mooy coupe du monde bi mm-hmm. lan nga gis tey jii ci pour Sénégal est que Sénégal tey jii mu demaat metti metti metti metti mooy génn si poule boobu mm-hmm. war na qualifier ko war na xam nga li gën a am solo demal dëkku jàmm boo ko mënul gagné sampal sa nuyu nga ñibbi si mm-hmm. boo ñëwee ku ñëw sa dëkk nag door ko six wala sept jeex na parce que ñu fi ñëw ñëpp Sénégal da leen di gagné loolu à domicile. waaw leen mën du benn. Il y une date que j'aimerais vraiment j'ai envie qu'on repart en arrière le 31 mai 2002 ça te rappelle quoi. Sénégal France <laughs> Sénégal France historique. Pape Bouba Diop. bonne relation nga moom. waaw sama frère la woon. lu <laughs> ñu lu ñu bokkoon dafa dafa bëri donc euh, depuis jaraaf la bi ñu amee 17 ans nañu xamante bu ñoo duggandoo. équipe nationale junior euh, duggandoo yéegandoo espoir équipe nationale euh, yéegandoo A ñoo doon bokk benn lal suñu lal dañ ko doon teg si suuf man ak moom bu ñuy nekk jaraaf suñu lal dañ ko doon sànni si suuf donc ñu bokkoon lépp sama sama mënuma wax sax sama gaayen sama frère dëgg la woon. quest ba bu muy dugg équipe nationale. Mm-hmm. sama loxo la jaar Bruno Metsu. lan moo lan la manqué ci moom tey Henry. lan moo lan moo la manqué ci Pape Bouba Diop. lu ma marqué si moom. Ah. manqué manqué bon lu bëri ah. bëri mënuma. ndax moom lu bëri quoi parce que lu ñu suñu jaar-jaar dafa dafa dafa dafa naturel quoi. si je regarde la photo. Ah, si tu une question à lui poser lan la doon doon. c'est ça. dañu ah bàyyi mu sedd. mu ñu bàyyi mu sedd. d'accord. mais moom tuddee na la doom. non. wala yaa ko tuddee doom. non non non tuddee sa morom doom. moom benn doom bu góor am mais sénégalais yi man jaaxal nañu ma quoi man vraiment man information yi may am. Ah, c'est les faux informations rek. lu ma lu ma seetlu. ak jàngat bi ma def si sunu si sunu équipe bi. na match bi passé bi ma ma seetaan. Euh, waaye li may sentir ci Sénégal fi mu ne mooy dafa mel ni équipe bi dafa am jafe-jafe yi njaxital bu ñu fubalee ba war a dugal. parce que pour man Soudan li ñu ko gagné keroog mën nañ ko dugal lu ëpp loolu. ci ay d' accord naa ak li mu raté dafa bari ñeneen ñi ak ñeneen ñi am problème finition. Mm-hmm. donc je pense que. non daa yomboon nag. Euh, Père Bagaay Père Bagaay waaw parce que football bu yombee boo dee football ak cuune xaaral ma wax la rek ñun bu ñu si toll boo ñëwee amitié fii man ak El concours dugal la mhm. dinaa doublé mu doublé déjà quatre mi ngi noonu mu ngi noonu dem si yàlla buuba dina dugal mhm. Salif dina rëcc mhm. wala keneen ak keneen wala El ma doublé équipe yi di dóor France la def France 14 voilà mais mënoo mënoo chaque fois di jël sa espoir yëpp def ko si Sadio Mané mooy dugal chaque fois mooy passe mooy mais. ana yeneen booy yi. Mhm. fu bi Sadio nekkatul léegi lu ñuy def ñun. mais père am na fa nga nekkoon de. Ah. ba ñu daggoon la ci bi muy dem. affaire GIA affaire GIA voilà ñëwaatal foofu temps bi mu amee 15 ans <laughs> moo tax te yéen a ngi ci niveau. Mhm. ci match bi mën nañu wàccaat ba tey ma ñëw ci. waa ñëw ci waaw c'est important. parce que damaa gis dafa dëkk Karak. Mhm. te boo xoolee Karak. Baobab Castor. Liberté 1 Liberté 2. Grand Dakar ñaari tali. loolu mooy GIA amitié. dëgg la bu jógee foofu. dem ba Medina football fa. nga bàyyi GIA. Mm-hmm. lu tax parce que mooy laaj ah. Mm-hmm. man moo doon joué GIA. la Pierre. mais moom si senior yi la bon junior la yem quoi. Ah, ay Abim Ndiaye grand sama grand yooyu. Mm-hmm. Euh, Thomas Diatta. waaw ñëpp. GA nañ nekkoon xam nga xam nga Thomas donc ñoom bi ñu nekk junior man dama daan ànd ak ñoom seen regroupement bu ñu paree ma sol seen maillot même nu mu tilim tilim tilim dinaa ko sol <laughs> donc GA man laa woon mais nag li ma tuubloo ma dem ma dem ci <laughs> jaraaf benn match final la. mu ne njaago yi quoi jëlee. <laughs> match final xaw ma naa yaa ngi koy fàttaliku bi jaraaf di dóor Gia. amitié. Ayanda moo dugal. ak Moussa Badiane Moussa ma leen rombee dama leen nuyu. <laughs> kii moo njëkk a dugal de yéen a dugal. ñoo dëkk dugal. Ah. après ñoom ñu jour boobu laa yeew ma ne sama oncle. Euh, jaraaf laa bëgg dem. ah ouais. Ah. bi match bi jeexee. match boobu moom mu def jaraaf man. ma ne jaraaf laay dem. léegi moom mu amoon benn xaritam boo xam ne dirigeant la. mu booleem ak paas. Mhm. sama oncle yóbbu boobu minime laa woon. waaye minime nekkuma woon sax kare. Mhm. ah la noonu la noonu la commencé. durant tes vingt ans lan ngay rëccu Henri lu may rëccu. lu may rëccu lu ma lu ma gagné woon Coupe d'Afrique daf ma métti de. cette finale cette chaque fois su may su may gis équipe buy yëkkati sax sama xol bi day jeex. Mhm. bon que dama ne woon ñun amoon nañu équipe boo xamante ne. Mhm. ak ay joueurs yoo xamante ne. mënoon nañu tegle trois coupes d' Afrique. Mm-hmm. waaw waaw après 2002 laa lay wax de. Mm-hmm. équipe bi si la gën a baax comme ni ma wax sànq rek après. Euh, coupe d' Afrique bi équipe yi. Cameroun yore moo gën a baax. Mm-hmm. ñun après 2002 la équipe. parce que les gars yi dina xam lu may wax. Ah, dafa bëri woon ay affaire yu garaaw yu nekk si. ay détails yu garaaw ay liggéeyante seen biir naka moom bu mos day rusa wax yooyu. 2002 loolu moo ñu doon xam moo ñu doon xañ ndam. waaw liggéeyante. surtout loolu tout temps dañu koy wax cette génération le plan mystique sur le plan mystique génération 2002 dañu dañu ñàngoon. non du ñun rek. Ah. Ah, non loolu yàgg na loolu dafa yàgg ci loolu yàgg na ci émission mun na nekk sax si si mun na nekk sax mun na nekk sax si politiciens yi. Hmm? Hmm. oui parce que dañ ko gagné laa lay wax de. waaw tey ba tey moo nekk mooy mooy ministère des sports. Hmm. man ñu teggi ma. waaw yow am ndam doo am ndam. Ah. sama papa ñi moo gagné coupe d'Afrique Matar Ba. prestation. waaw ñun ñuy ñaan laat Diop. mu nekk deuxième deuxième euh, ah, ministre bu ko andi. 2002. Ah. Sénégal dem finale. doon jouer contre Cameroun. 2022 mm-hmm. ngeen dem Cameroun gagné fa coupe d'Afrique. Mm-hmm. loolu nag lu lu. lu incroyable. waaw mais buggoon nañ mu nekk ñoom nag mu gën a neex. mu nekk ñoom. mais man xamoon naa ko. man je savais que Sénégal. waaw lay jëlee coupe d'Afrique. ah ouais wax naa ko un an avant. je la. mais comment si loolu nga nga ne ma cette fois ci Fatima c'est la bonne man loolu jàpp naa parce que Cameroun la. daf ñu la jël. Mhm. moo nu gagné final yàlla du seetaan. Mhm. et puis on a vu une belle équipe. Mhm. et puis am dirigeant nag yu ci taxaw. Mhm. te li ñu daan xañ comme ni ko Henri de. man ko ñu daan yàqal yu bari. Mhm. foofu au moins amoon na benn solidarité. waaw ñëpp bëggoon ñu àndandoo daal. ñëpp bëggoon donc boo gisee Bruno si réussir. Ah. bi mu ñëwee réussir nga xam ne bu njëkkoon dañ daan jël Sénégal jox ko équipe bi. Bruno dafa ñëw rek effacer lépp. yu bëri yu doon am équipe ay jour yu mënoon football mu génn leen. comme Pape Ñoxor. Mhm. Pape Ñoxor ñëpp a jaaxle. pourquoi mu génne Pape Ñoxor am <laughs> football la xam. ah, ah football la xam. man ci sàkketu Demba Diop laa juddu. <laughs> bi ma amee sept ans. Mm. xale sept ans yooyu di dem stade. Mm. ci laa bokkoon di burle. xam de de soixante de soixante neuf sax laa mën a jël wala soixante huit. à nos mm-hmm. lu fi xew ci football xam naa ko. am na benn temps rek boo xam ne émigré ji naa fàtte naa yu bari mais bi bi bi bi erreur Bruno Messi non c'est pas parce que Salif Diao professionnel la nga remplacer avec ñoxor mais mënu ko woon de non man gisuma ko ah? gisuma numéro 6 bu ko mënoon. bu ko mënoon. oui oh, super extraordinaire mais bi ñu ko génnee man damaa tiit man Bruno tubaab bi lu mu te xew la nii mais heureusement mu am chance su. Sénégal yëpp ñoo regroupé autour de lui. jàppale ko jàppale ko mu am Henri. Mhm. am El Hadj Diouf oui am Sadio. Ah, am kii Salif Diao. am Salif Diao am Pape Bouba. Fadiga Fadiga ah. seen premier match bi de football ah. contre Maroc. Mhm. Mm-hmm. Moussa Ndiaye Araba match bi danoo daw six cinq minutes. Alassane Dóor sama grand frère gaañu la yal na ko yàlla xaaree àjjana. ma ne ko Ousin booy final lañu jëm. mu ne ma lan ma ne ko booy dañuy dem coupe du monde. seetaanaan marocain yaa ngi arrière. Mhm. Henri bu <laughs> ñii danoo saay saay de. comme da nga mën football da nga xam football. en 2002. waaw. Metsi. waaw. Henri Camara Coupe d'Afrique daf ko toj. en 2002. 2002 Coupe d'Afrique daf ko toj ñu ñëw Coupe du monde. ñu génnee ko contre France footballul. waaw c'est normal. ñu teg Moussa Ndiaye. waaw yow loolu lu mu la def. non naqari woon nga mel nga génne Sadio na ko mais c'était normal. <laughs> waaw donc xam nga dafa nekkoon. Euh, match boo xamante ne gars yi dañu pare woon pour. Euh, défense waaw. Moussa Ndiaye physiquement. waaw il est costaud mais man loolu d' accord naa si woon de mais ni ma ko defee moom metti. Mm-hmm. ça dañ ma teggi genre. voilà kenn du wax ak yow. ma loolu rek moom si metti woon lan moo tax woowuñu ma ak. parcours bu ma def ak bi nekk meilleur buteur équipe bi. c'est ça teggi ma comme benn voilà quoi xam nga loolu moom si metti woon. est-ce que loolu. mais bi équipe bi gagné man di ma jubilé ñoom sax ñu ngi jugé. jubilé wul du noonu. daful dafa xool affaire mu ne non mais kii. normalement dafa waroon toog coin saaga. parce que man d'habitude suma football. te tuuti leer la gars yi koy gis sama kanam de. man nekkuma jour yoo xam ne danga may teg ban may reetaan de. man damay toog ban di mer. est-ce que loolu deful sa déclic est-ce que loolu deful sa déclic. di mer. Mhm. mooy sama bopp lay mere. yow coach bi su ma duggee di nga xam man maay kan. noonu mhm. laay ba équipe bi bañ a gagné nag. c'est ça. te noonu la demee contre Danemark. c'est ça bi may dugg contre Danemark maa ngi dugg man ak euh, Camara euh, Souleymane Camara. Souleymane man Camara ma ne ko booy xaw ma yow de mais man banc bi dootuma dellu. <laughs> dootuma fi toog. non c'est fini. c'est fini. te noonu la ko defee te noonu la demee te ngëm-ngëm la. ngeen baal et puis loolu mu def noonu. moo tax mu marqué coupe du monde bi. dëgg la mais fi du monde bi di jeex looy dégg Henri. parce que moom woon ah, rek. revanche la c'était personnel. c'était personnel alors et puis aussi li tax mu teg ko ci c'est pas normal ñu bañ a wax ak moom ñu isolé ko non ça c'est pas c'est pas bien. mais positif na. waaw tactiquement ah. parce que Moussa tactiquement. Ah. Moussa Ndiaye ah. dugalul but. mais mu gagné match. alors sans transition Sofia ngeen baal ma bëggoon naa leen bàyyi ngeen wax ak moom wàllu football mais amuñu temps ñu reste dix minutes te foog ñu waxtaan làmb. coupe du monde moo la gën a xam làmb. suba coupe du monde dafa am oui oui oui na ci na ci dafa di leen di leen encouragé rek. parce que France nekkul équipe bu ndaw tamit ah. donc euh, man booy am na. am naa confiance ci ñoom donc di leen ñaanal yàlla na yàlla may ndam. Ah, amiin très bien. Sofia loo bëgg laaj Père Bécaye ci làmb bi xam naa ne comme que da nga bëggoon nekk na ah. la. <laughs> waaw ci doomu Bouba Bouba parce que dafa bëgg a nekk joueur. Euh, donc Bouba Diop bi. Euh, wala amu leen man franchement awma contact ak ñoom ko ok voilà pour dire vrai quoi. Ah, très bien léegi mu ngi mu ngi kii mu ngi euh, génération foot. génération foot léegi nag mën nañu jël football tëj. Ah, nañ tëj. suñu gannaaw amul tëj ah. ñoo dem il faut mu waxaat noonu dara. lamb bi s'il vous plaît. papa c'est mm. Lac de Guiers. Mm-hmm. mais mais bu neex nag. gëj naa xool combat boo xam ne dama jël sama temps di ko seet. non bii moom. organisation bu doon jeeg mën a sëy de papa. Eh. dafa ah. ma ah lu tax papa. combat ñaar mais nan wuti ku ko daan. waaw wuti ku ko daan. mu ne mais peut-être am na beneen combat. on s'écoute bëriwul. Mm-hmm. mais bii Lac de Guiers je suis d'accord qu'on se dise la vérité. je suis d'accord Lac de Guiers song na. je suis d'accord Lac de Guiers dóor na. Lac de def na lu mu gëj a def te résister na. fu mu waroon a mën a na entraînement a changé. si waaw a changé. mais. oh lii mais damaa gis ne dafa. dafa am yaram mais taxaw na. waaw Lac de Guiers na la mel man bokk naa saal ak moom. taxaw na de. mais moom forme am noonu la noonu la mel taxaw na de. waaw parce que bu taxawul woon non physiquement bu taxawul woon. non non ëpp ko doole mënut a nekk. mais mais amul doole bu mu daanee Lac de Guiers te ñoom ñaar yëpp ñu nekk ay mbër waaw c'est-à-dire Lac de tax ñu wax wax boobu parce que Lac de dafa naqaree daan mm-hmm. Lac de ku bari 18 ans mm-hmm. ñu daanu benn yoon ah loolu loolu loolu loolu c'est pas pour tous les non jàmbaar la il faut ñu wax ko nag waaw jàmbaar la il faut ñu mais Sénégal ñoo tàmm wax nit xam nga rek Sénégal danoo doy waar li nu mais ku ci am loola naqari dama woyu sa mbër mu ñëw daan ko. ah, ah, hmm. ah man de man ma daan ah, man de bu ma eh, amoon mbër boo xamante ne bu ma yoroon mbër boo xam du daan. day match nul gagné. match nul gagné. mais damay daw ba rëq. te sincèrement combat bi benn kay comme li nga wax noonu par rapport ak li nga wax noonu sincèrement combat bi moom ni mu ko waxee woon ci conférence de presse bi boo jógee naa ñëw ñëw dinaa ñëw te il dem dox na ci kaw si mais ñëw naa ñëw na man moom loolu laa jàpp li mu waxoon moom def na ko et puis beneen affaire bi gars yi dañoo xeeb Siteu ah, ah, mhm. ah. parce wax yu bari yu ne yow xeeb Siteu la xeeb Siteu waaw que boo ne non Siteu Siteu moo war a daan non Lac de Guiers moo war a daan moo non Siteu c'est un lutteur et puis xoolal lii lii kenn du ànd ak ñoom te doo am jom détermination dina gagner Henri xam na li muy wax. Mm-hmm. Henri bi muy dugg ci biir terrain bi keroog bu ñu football ak Danemark ak Suède. Mm-hmm. public détermination moo ko def loolu li mu mm-hmm. def. mais détermination la booy bi am. ba tax mu mën a résister yéen yéen a ngi fàtte bi c'était di gàddu téere bi di ñëw naan ma père damay waat. dëgg la a ngi fàtte benn ah. direct la ko sax. <laughs> ah loolu yàggu fi. mais diggante bi dem na ba tollook ñoom Balla gay ñoom ñoom ñoom Lac de mais papa est-ce que du peut-être moom moom moom euh, Siteu public bi mu am nii tey xëy na moo tax mu ak ak bien liggéey na moo tax mu egg fu mu egg mais est-ce que manqué wul benn puissance bi euh, ba mun a egg si fii mu egg waaw parce que keroog combat bi am na xeetu doole yoo xam ne bu ko yoroon da koy daan ah, day daan ah mhm. waaw mais doole il faut moom it mu dem mu entraîner et dee leen wax Siteu dëgg bi mhm. man Siteu sama fils la daf ma yow gis naa loolu complicité waaw fils mhm. boo bëggee daan nii da ngay entraîné. dëgg la c'est important bàyyil coow lu bari li mhm. yu bëri yu mu daan def ci làmb maa ko ko tere. da daan ñëw di perturbé adversaire am di ñëw saa mu dem ci côté mu dem ci adversaire bi daan ñëw war a indi ay kaasu café café Touba. ñu koy xel li muy tuus. maa ko fi jëlee. mais Père Bécaye dama amoon benn par rapport ak euh, poids poids mbër ah. est-ce que duñu catégoriser tamit tamit poids yi. parce ah, que parce que parce que différence ku waala daanee Eumeu Sène bu boo boofee ci kaw Eumeu mënu koo yëkkati. ah loolu mooy lamb nag. mais mais Siteu wax na ko non à partir de de 100 kilos ñëpp mën na ma bëri. dëgg la peut-être bu dee da nga am comme Lac de a 140. Siteu il a 108 oui 108 mën na noo bëri. mën na noo bëri ah différence bi mën na bëri. daan na fi Moussa Diame Moussa Diame yor 140 kilos. Mbaye Gueye est-ce que boobu sax mat na sax. Ah mhm. Mbaye Gueye daan. mu safatee man na dëgg. waaw ah. mm-hmm. Eumeu Sène Bombardier xoolal li Eumeu Sène ra ëpp. waaw mais techniquement ñaari yoon la ko daan. waaw techniquement dafa sax dafa rëcc de. Ah. moom moo dugg dugg bu bon. waaw ah, dugg duggul moom moo xëcc Bombardier daaneel. comprendre mais bii bii moom moo dugg surux. waa ji boofu ci kawam. Mhm. comme yéen xam naa boobu juddu ngeenam bi mus bi Mor Fadam di daan bi Mor Fadam di daan Moustapha Gueye. Fadam. Mor Fadam xam nga fu mu dëkkoon. waaw Thiaway. waaw non Géejawaay. non maa ngi non non nu ku dëkkoon Thiaway. ah dafa na fi Maam Njamba. waaw te ko ëppoon doole. waaw. mais et puis technique mën na def lu ne. mën na mais mais cette mobilisation des jeunes là de de de de Siteu. ça c' est la banlieue. waaw il faut état bi di ci baxel. c'est important lii du caaxaan. y a du monde c'est des jeunes genn wàll gi jàngunu. Mhm. genn wàll gi liggéeyunu. man dem naa fa bëccëg wala interroger. non c'est bëccëg ay 11h. mais bi baax dëkk bi xamee ni maa ngi fi. mais li ma wër ci doomi aadama bi am na liggéey ah ba damay dégg souvent ngay ngay wax jeunesse bi même bi ma lay dégg keroog ngay reporté aussi tu parles li bomb la ah. effectivement c'est ça li bomb la mais papa li ngay wax nii man semaine bi dem naa fa avant combat bi semaine bi dem naa fa tournage di fa jëli sama belle du jour mais il a ñu gis 2STV bi ci micro bi ñoom ñëpp daw si ñëpp ak accourir et puis nag yéen 2S la tuuti du baax gërëm leen ñii ñi ñu leen bëgg la ñu mm-hmm. waaw waa jàmm gën baam ah la réalité la banlieue nous aime on on mhm. grand man li ma neex ci Siteu dafa bëgg waa waajuram bu jigéen ça man je kiffe ce gars ndax dama ko bëgg waajuram bu jigéen ndax jur mooy lépp te ba ma déggee mu toog mu ne mënu ma woon daanu ndax sama yaay lim ma wax. mais foofu yaakaar naa ne euh, xol yëpp tooyoon nañu. yow xool nga lii non c'est énorme. Mm-hmm. c'est énorme te jàmm gën lañ jógee les gars jàmm gën lañ jógee. bu ñu jaaree ci péage bi duñu fay. d'accord bu ñu jaaree ci suuf ah. bu ñu dajal da nga leen di xajal ñu jàll. ci lii. Ah. Mm-hmm. na ci état bi xool. Mm-hmm. xale yii. genn wàll gi jànguñu mhm. ñi ciy liggéey bariwuñu mhm. nanu xool nu leen di former c'est important taxawu leen c'est important mhm. c'est très important man yàgg naa di ko wax mais dafay mel ni état bi duñ comprendre nu li may wax wala important mais nan leen bàyyi xelaa ah. c'est presque fini l'émission waaw dafa mos a wax si benn interview mu ne moom moom Euh, dafa mel xaritam bu gaañ jox mébétu xaritam bi mm-hmm. mooy tabaxal yaayam ñëpp man léegi kër gi nag maa koy yeggali loolu moom saa ma tiim tabax na ko non il est très social xale ba toq na ci kër il est très social oui euh, j'ai une question euh, oui la dernière la dernière qui n'a rien à voir avec ce combat tey jii nii Modou Lo mm. ni mu gañee mm. moom mooy roi des arènes bu décidé woon tey bàyyi làmb mm. mooy tirer sa révérence léegi couronne bi nan lay demee ñu tegaat ko rek tournoi. waaw ñu jël tournoi def ko parce que man nag roi des arènes gawuma ko. Mm-hmm. waaw man nag dama la koy yëgal léegi roi des arènes ni koy gañee daa yomb lool. imagineel bu amaa daanoon Modou day doon roi. amaa war naa doon roi. ci kaw ci kaw ñi nga xamante ni ñooy fay sa mm-hmm. wax léegi nag ah, ku bëgg a làmb nag baal leen ma ku bëgg a làmb mm-hmm. ce soir Bantamba 22h30 21 heures 21 ku bëgg làmb daal nañ leen xaar Bantamba ce soir <laughs> Bekay Mbaye Modou Mbaye famille Mbaye Lutte Mbaye Mbaye Mbaye Fatou <laughs> mais Modou sur ce macha allah macha allah macha Harry. Mhm. oui waaw. kii xaw nu ngeen ko icône wala lan. icône légende légende voilà c'est la légende. Ah, ñii ñii dañ leen di war di beral loxo. baax am na dans les grandes démocraties. voilà mhm. dañ leen di beral loxo. très bien macha allah Harry merci beaucoup. merci grand Bécaye merci à vous qui nous regardez sur la 2STV. Fatima merci merci Mal merci Habib merci Sophia merci Patra Aïda Khadi. Allez, salut à tous, à demain. Allez, Ciao.